Good morning, Gambia. Good morning, the world, and good morning, West Africa. It is um, Saturday, and it is the breakfast show here on Africa TV. We're saying a very, very big good morning to wherever you are. Um, it's another Saturday, and you know, as always, as ever here on Africa TV, when it's Saturday, especially this time from 10 to 12, it is the breakfast show. The breakfast show, um, it's a very, very important um, um, show here on Africa TV uh, because we talk about issues or we talk about stories that has happened uh, during the week. This is where we, is why we we have the breakfast show because we all know that most of you don't have time to sit and watch TVs, especially at night when you when you close from work or when you close from the courses of the day because you normally feel tired and then you just need to go home and relax. So that is why the breakfast show is here to you know uh, tell you what is happening and you understand, give you um, some of the details that have happened or give you some of the stories, not all, but some of the stories, some of the major stories that has happened here in the Gambia and also abroad as well. So we're saying a very big good morning to wherever you are, where you are, whether you are on your way um, to the market and uh, to get something for the family to eat, it's Saturday, or whether you're on your way to do to run your personal errands, whether you're on your way to go to work, wherever you are going, as far as you're watching the, the breakfast show here on Africa TV, we are saying a very, very big uh, good morning. So, um, and then we are praying for those who are sick. May, uh, may Allah give them shifa. Those who are in troubles, may Allah ease, them. ease everything. So we're saying a very, very big good morning. And you know, it's September and it's the end of September. So today, um, the breakfast show is going to be a bit uh, different because we have a lot of issues to talk about because um, if, you, if you know and if you guys have seen during the past week there are so many things that happen so many stories the Gambia has seen um, major, major, events happening here major um, issues so that is what we are going to discuss uh, today by you know looking at the stories and then um, having or standing on it just few minutes to discuss about the issue that has happened here um, in the Gambia. So today the breakfast show will mainly be we mainly focus on the Gambia and the issues that has happened uh, from last week Monday up to Friday. So bringing you different stories that has happened or which IFK TV has already published. So this is uh, the breakfast show here for you today and I hope and I know you guys will enjoy this session because we have someone which you know that you know we will be going um, through uh, with these uh, stories and we'll be giving you positive analysis and also independent and factual analysis as well so that is why the breakfast show is here for you everything that we are doing it's for you the public it's for you to learn and it's for you to know what is happening and you know we bring you people that you know that when you talk about issues you will know that they are being objective and as well as uh, they being factual to whatever they are saying. They, um, not necessarily, they might not be experts, but we are bringing you independent analysis. So it is left to you, the public, to decide um, whether uh, which one is good or which one is bad. But our job here is to give you what we have, which is the facts, and then you decide on what to do with those facts, which are the stories and also the analysis that we are going to have here. So Garbi, uh, good morning and Nakasubasi. Uh, maa ngi lay fay am si maa ngi nuyu ñuy sitaan ay euh, Africa TV yëpp euh, rawatina breakfast show tey ñu nar leen diktilaat euh, programme bu am solo waxtaane fi itam ponk yu bari ak suñu gan yuñ ñu fi am ñu jàngat tamit <clears throat> ay ponk xibaar yu bari yoo xam ne jàll na ci week bi ñu nar ko waxtaane ponk yu bari la yoo xam ne noonu lañ koy defee di leen wax ne itam namoon nañu leen dax wii bële breakfast yu amul euh, waaye ñëwaat nañ te incha allah fas yéene ñëwaat ak doole continuer liggéey bi incha allah. Mm-hmm. ba pare euh, fan yu sot bi bari na ba pare. Euh, malaria bi bëri na te malaria bi xew ni dafa garaaw parce que daf la dee ñëwee du nekk léegi-léegi mu ñëwee laa socc léegi-léegi mu ñëwee laa dina bu métti léegi-léegi saxaat kenn daal mu ta understand daal feebar yi bëri na de waaw fii loolu moo waraloon breakfast bi amutoon surtout parce que dañ xaloon a tawat waaw ñëpp ñëpp tawat mhm. feebar bi malaria bi moom nu la lay ñëwee ku ci mel ni man moom foog naa am naa malaria lu mat wan moon xaw ma ne xaw ma ne am naa ko billaay da ngay dem laab mm. ñu seet la ñu ne la dara nekkul fa ndekete yow malaria moo la bëgg a so mooy loolu waaye daal alhamdulilah mm-hmm. ak di ñaanal képp ko xam ne xëy na yaa ngi Euh, koy dund yàlla na yàlla fëgg sa bopp ak euh, tawat boo leen mënti am moo xam tawatu euh, xaalis la moo xam tawatu jafe-jafe wér-gu-yaram la yàlla na yàlla fëgg seen bopp yi incha allah Eye Africa TV nii la koy defee rek sa saa wu nekk kon jërëjëf kon yàlla yàlla may ñëpp xaalis ñoom xadi jaas yi yàlla na ñu am <laughs> rek ah, balaa ñu dugg tey si story um, bi fi am ñu àndal. waaw si story bi. waaw waaw waaw moom moom mi ngi fi xam naa dina am keneen ku ko ku ko fekkee si kanam mooy Euh, honorable Souleymane Diame moom tamit mu ngi fi. waaw xam nga mbiru FPAC faw ñu wax ci tuuti waaye moom Yankuba. Mhm. Euh, dinañ euh, Yankuba Diallo doon taskatu xibaar doon suñu ay naataango di liggéey ci këru taskatu xibaar boobu di Foroyaa bokk ci ñi fa gën a xarañ waaye tamit bokk ci ñu yëngu ci wàllum tasum xibaar foo ko woo nag loolu yitteel ko doom di di ngir jox nit ñi li nga xam ne mooy xibaar daf ko yitteel lool kon su ko defee moom. Euh, dinañ ci ànd ak moom nag ci li nga xam ne mooy mu indi ay jàngatam maanaam analyse euh, ci yenn xew-xew yi nga xam ne xam na fi ndax lu bari xew na fi ci ci ayu bés bi bëgg nañ indiwaat ci nag moom mu joxe ci jàngatam euh, ñiy seetaan tamit jëriñu si incha allah waaw. waaw mu nekk euh, lu lu am solo euh, Garmi comme que suñ nga si ñëw ne rek ñu mm. dugg si waxtaan mooy si force segment bi comme stories yi nga xamante ne euh, dañ ko fi dee am parce que suñ seetee last week Saturday ki nga xamante ne mooy lawyer Ousseynou daabo jiite parti UDP amoon na press conference rek di jëmale kàddoom ci téye biñ téye woon ki nga xamante ne mooy Mamadou Sabally ak Sonko Gambe mu nekk ñoom it ñu téye leen daal si pour question leen si euh, li fi jot a xew parce que réewu ne mbir ne am nañ ñetti police yi nga xamante ni euh, fetaloon nañ leen euh, ñaan ñi ñàkk si seen bakken kenn ki ba léegi mu ngi lopitaan loolu nag mu tax ñu ñu oo ki nga xamante ne mooy saabali pour rek ñu question leen si xam nga rek seen kàddu yu jëmee si yooyu noonu ñu dem ak story bi su ñëwaatee rek ñu yaatal si waxtaan alkaati yi ci ajuma ji daldi nañu woo Mamadou Sabali di lootabeeb langub UDP ci ay kàddu yi mu bind laata ñuy nemmeeku jey ji ci réew mi ginnaaw ba ñu soxee ci kaw ñetti takk der fële ca Sukuta Jabang traffic lights kii di Sirifo Sonko moom it bokk na ci ñi alkaati woo ci mbir mi ginnaaw ba loolu amee kiy jiite langub UDP gi di Ousseynou Dabo daal dina janoo taskati xibaar yi ngir doon addu ci téyendi bés téye Mamadou Sabali the statement kàddu means the ceremony gi ci juróom-ñaari fan la woon ci weeru setumbar ci xëtu Facebook ci àddina sépp su alkaati yi amoon yitte ci ne saabali dafa jalgati yoon des ko waroon a jàpp ci juróom-ñaari fan yi wala ci juróom-ñetti fan yi waaye Rambo Jatta warul tax ñu jàpp ko. mu teg ci di xamle ne bu fekkee am nañu ay finde ci kawam nañu ko teg ay daan moo gën ñu tiye ko ci laaj ak tontu kese. dañoo sukkandiku ci seen moomeel daal di jàpp ci lañuy jàmbat gis nañu ko ndax amul benn solo ngir téye nit ki. ci ay bés ngir amal ab gëstu léegi li Mamadou Sabali wax ñoo ngi ko bind amul benn gëstu bés war a amal bu fekkee loolu mooy mbir mi te xam nga ne am nga firnde kon looy def foofu yóbbu ko ci yoon bu fekkee li mu wax dafa salfaañe yoon soxlawul ngay def benn gëstu. violates or infringes any of the provisions of the criminal code you do not need any further investigation. bu ñu sukkandikoo ci alkaati jàpp Mamadou Sabali gi li ko sabab bokk na ci lamu fësal ci xëtu Facebook bi loolu tombeek ñu boom ñaari alkaati ci réew mi jaye jooju xew ci altine gi ba ñaari alkaati faatu ci muy police constable San Diego Gomes moom mu ñu jébbal boromam ci gaaw gi ak police constable pate Diallo moom ñu jébbaloon ko boromam ci ajuma ji ki leen ñetteel di Ansa Diaw moom mu ngi ci diggante dund ak dee ca raglu bu Banjul bi maanaam Edward Francis Small Teaching Hospital ba tey ki njott ne moo jëf-jëf ju ñaaw ji mu ci loxo alkaati yi ngir ñu wéyal li ñu tugi Mariama caam ci xibaar yi waaw comme ni ngeen ko gisee nu ki nga xamante ne mooy lawyer Ousainou Darboe di parti leader bu UDP moom nag mu ngi doon àddu ci ah, téye buñ téye woon ki nga xamante ne mooy Mamadou Sabally ak ki nga xamante ne tamit mooy Sonko Gambe di wax ne daal su fekkente ne nit téye nga ko te nga am evidence yu correct yi nga xamante ne moom loo tax ñu jàppaleen at least war ngeen ko mën a charge moo gën di ko téye si ay fan wala di ko am nga laaj question ak yooyu moom daal lu ko loon mooy comme que jàpp ngeen ko te njottu ngeen ne lii ak lii la def ngeen ko mën a caac moo gën ngeen ko téye noonu si ay bés ak yooyu noonu. waaw <clears throat> moom mooy nga xam ne mooy njiital langu UDP gi Ousainou Darboe euh, mu ne bu fekkee wóolu nga nit. te li nga koo jàppee da nga am ay firnde. mu ne yóbbu ko ñu àtte ko wala nga teg ko daan maanaam caaj su ko defee nit ñi euh, ñu war ko àtte waaye téye ko noonu rek ci ay laaj yoo xam ne yow bu fekkee mu ne li mu wax. daf ko bind lu mu bind la boo demee ci euh, xëtu Facebook am di nga ko fekk ne lii moom moo ko bind moo ko wax te bu fekkee nga ne dafa wax wala dafa yàq li nga xam ne mooy loi maanaam mu yoon mu nga nga am moo gën euh, téye ko bi li nga xam ne mooy juróom-ñaar fukki waxtu ak ñaar maanaam 72 hours te ñu bëri dañ jàpp ne euh, ci lu loi moom ni mu ko waxee te defe naa la mm-hmm. xam naa it xam xelam màcc na si nit ki lu ëpp ci waxtu woowu noonu ba noppi tegul defaloo ko euh, dara euh, du du du yoon moom loolu la doon loolu la doon daal di euh, ñaawlu su ko defee xam naa ne ñu njëkkee man ñu njëkkee honorable mm-hmm. doo ko ñëw ci ci ci ci Yankuba xam nga Yankuba tey suñu naataango la Yankuba du gan dafa ñëw rek bokk si liggéey bi waaw wane ko du gan si liggéey bi <laughs> waaw su ko defee kon ñu njëkkee honorable mm-hmm. du ñàkk moom it am na gis-gis ndax gis nañ fi Mamadou Sabali bi nekkul mooy gulet police woolu woon ko woolu woon nañ ko fi ba mu juróon wax yu bari woon ñu bàyyi woon ko ñu wooluwaat ko ci ginnaaw ba nga xamee ni euh, boom nañ ñaari alkaati maanaam ñaari euh, euh, police yoo xam ne dañ leen sut bañ faatu ña kenn ki jëlee si gaañu gaañu loolu nag tiitaloon ñu bari tombeek nag Mamadou Sabali amoon lu mu bindoon ci Facebook am yàggul rek jéye ji xew ñu bari nag daal di lëkkale loolu ak li xew ñu bari wax si nag ñu am ni ñu ne sax Rabo jaata waxam boobu noonu moo tax sax police woolu ki nga xam ne mooy euh, kii lawyer Dabo sax si waxam nee na mu ngi bind lii si juróom-ñaari fan maanaam euh, on the seven of September waaw waroon nañ koo jàpp si that day wala after that day waaye lu tax ñu xaar ba am ku wax ñu doog koo jàpp loolu tamit ñaawlu na ko nan nga yow jàngee situation bi nii waaw jërëjëf euh, maa ngi leen sant bu baax di nuyu nag suma suma bu baax bi doo géej naa ko gis Yankuba eh, ñu ngi rafetlu jotaa bi bu baax mm, kontaan nañ si liggéey boo leen nekk di def euh, as euh, journalist kontaan nañ tamit pour ñëw tamit euh, ay Africa fii moom waxtu boo leen ma wooye ah, rek even su jàmpee sax dinaa ñëw because liggéey bu rafet boo leen a def mm-hmm. te ñun loolu lañ gom moo tax duñ mus a ragal wala duñ musa naagu pour ngeen ooñu pour ñu ñëw waxtaan nit ñi waaw Ida da nga koo gisee mu baax walla nga gisee ko beneen yoon mm. loolu rek la mm. te fekk ñëpp dañu nekk si benn affaire waaye comme si laajte boo ma laajte ni si waaw xam nga comme dëkk bi moom eh, ñu ñëpp dëkk bi lañ am te ñun ñëpp fi bokka te ñun ñëpp a fi yem mm. waaye dafa am nag loo xam ne ni moo ñu tënka mm-hmm. maanaam mooy luwaay yi mooy rule of law su rule of law nag dëkk pour mu dem si kanam eh, rule of law bu wunoonu eh, muy politicien bi muy njiiti réew muy askan bi yëpp daanaka eh, dañ war a respect loolu waaye suñ ne rule of law loolu luwaa la rek buñ defar te yaakaar naa ne luwaa bi <laughs> dañ ko defar mu connect ak suñ value waaye suñoo wax rek maanaam if we are talk about our values maanaam mooy ne rek ak suñ diine sax eh, doomi aadama ak nu mu di demee rek eh, na nga màndu si lu nekk si sa waxin si sa jëfin and whatever because at the end of the day ñëpp mënuñoo bokk gis-gis eh, actually am na lu jotoon na am ñu ne ay nit bind nañ xam nga comme man moom loo xam ne ni day isi controverse yi du ma si dee bugg a dugg that much waaye xam naa ne e, nit ki daal looy mun di wax looy mun di binda ak lu métti métti e, na nekk loo xam ne ni du gaañ nit waaye dina nekk loo xam ne ni tamit dina mun a nekk si diggante e, because suñ yonent bi ñun man islaam bu ma jàngal yonent bi mu ne booy wax dara wala booy def dara ak lu métti métti daal bu mu bul ëppal da nekk si digga waaw comme si luwaa lañ nekk yaakaar naa ne mais bi binda bi eh, gisee nañ ko you know the way round police yi oote ñu dem pour laajte waaye tàngoor comme bàyyi nañ ko so lii yëpp dafa war a nekk loo xam ne du affaire yi honorable eh, Momodou eh, Sabally suma jarbaat la waaye lii applies to all Gambians pour ñu xam ne ni rek ak nu mun di demee whether yaa ngi si government bi wala o yaa ngi si opposition bi di rule of law dañ ko war a am c'est suñ dañ ko war a respecté apart from loolu ñu ni neen as human beings or as Gambians dañ war a respectante whether bokk naa si mbir wala bokkuñ si mbir loolu nag mun nañ koo discourse based on our diverse and eh, diverse opinion or whatever waaye cër dañ ko war a joxante because ñun ñëpp kenn ku nekk dafa am loo loo nekk di def si liggéey réew mi tey nii suñ buggee discouragante wala di ŋaañante eh, daf ñoo tardeel te yaakaar naa ne Gambia moom is high time ñu génn si yooyu si social media yi nekk di wax façon wax bu nekka daf ñu nekk di tardeel boo génnee si yeneen dëkk yi nit ñi amuñ time boobu nit ñi luñ xam maanaam mooy ne politique su jeexee kenn ku nekk foo mën wala foo nekk nga jàpp si loolu def lu la war waaw Euh, su ko defee euh, yangu yow tamit euh, jàngat bi ñu lay laaj ci situation bi Momodou Sabally ñu woowoon ko fa questioning mm, daanaka nekk na fa ñeenti fan ci loxo police yi ñu mujj koo caaj li nga xam ne mooy dafa daal di yëkkati kàddu yoo xam ne euh, fitna la jëmee ko ci ay ay ay ay alkaati moom ak Sonko Gambie yëpp so wax ji nag jur na coow ci ne euh, Rambo Jaata lu mu wax moo tax ñu arrest ko ndax bi mu ko wax li mu waxoon ni wax na ko lu yàgg bu fekkee dañ xam ne wax bi euh, nii la toll mënoon nañ ko woo balaa dara di xew soo yow ban jàngat nga nga nga def ci lool alors first bugg a wax di presse comme mooy presse conférence vidéo bi dañu bëgg a créer des perspectives na nit ñi view di police indi wéy ñoom ñu ngi ko viewé euh, seen njiit bi comme noo ko waxee dafa wax ba Bakso moo tax ba ñu téye beneen jigéen bi ci tamit boo ñëw wax ñu téye ñi xam nga boobu perspective la mooy créer nii so mu mu ngi waxaat tamit ne um, euh, Sabally lu mu wax mooy statement of fact lu mu wax mooy dëgg ne police brutality waaye nag suñ gestuwee ñu xoolaat saabal lu mu bindaa it's not about loolu saabal daf leen tuddee in uniform bu deewaante si ba si biir waxam bëgguma read yëpp because kàddu yi si man ñaaw neen waaye dafa dem bese mu ne what is heading for you is a yaa ngi wax si lu ñoo wax figurative expressions yaa ngi wax ne you are devil in, in, in uniform your hands are stained with blood but what is heading to you is um, it's a float Hanga bobu. it's a cause of concern The mm-hmm. timing be later Later ñëw policy yala def So three of them nyari there. Policy they have a legitimate cause of concern pour uh, laajte even though uh, guy they want to argue like it's about a matter of uh, press freedom or freedom of speech mm-hmm. What's si man B is a legitimate concern The policy on oo nañ ko investigate nañ ko waxtaan nañ ak moom ndax science system yi there are different things yoo xamante ne it happen in the in camera kenn xamul lu xew gis nañ different media di bind ne nanguta science statement science statement waaye lu xew rek jëfoo na ak police yi te police yi charge nañ ko day suspect dañ suspect ne he has committed a crime dañ ko yóbbu court te dina am chance pour defend boppam waaye man fu ma bëgg a wax mooy ne first every citizen Sabally is a citizen comme euh, honorable lu bu nekk soo demee si constitution bi there is a provision for duties of a citizen mm. duties of a citizen mooy section 220 dafa wax lu leer as to ku nekk naka nga war a behave su fekkee da ngaa bida su fekkee da ngaa wax su fekkee da ngaa jëfoo sax anything constitution bi am na lu mu la wax mm. mu ne mm. one mu ne your rights and and duties are inseparable moo ne mun loo takk mun loo takkale sa rights yi xam am nga right pour wax am nga right pour binda mm. am nga right pour doxin everything waaye ko it's inseparable mun munuloo ko takkale ko mm. ak sa duties la mooy sa duty one mu ne you respect the rights freedoms and legitimate interests of others and refrain from acting in a manner detrimental to the welfare of other persons mm. bii moom ku nekk dañ ko war a cram ku nekk def ko war a dunde kon saba lu mu def nii I think uh, a responsible party si man su fekkee uh, to be candid fekkee parti bi dafa waroon a dissociate seen boppa si kàddu bii dan to attack the arrest man su fekkee man la I will say dañ ko war a dañu war a dissociate because wax boobu noonu wax bu xóot la wax boo xamante ne you don't expect that from a senior citizen ku mu soon a nekk secrétaire général you yaa ngay déggoon si time bi tam waxoon na gars yi call ko question ñu téye ko mm. kon parti bi dañ ko war a jàngalaat waaye political parties si Gambia tamit problems leen lu tax du ndee jàngal seen members yi soo xoolee saabal track record am fu mu jógee du APRC mm. ñoo na bokk ak UDP kan moo xam daal mus nañ ko jàngal UDP su fekkee moom lu mooy mooy values UDP kon dañ ko war a jàngalaat because seen seen constitution seen policy yëpp àndut ak lu moom lu mu def du constitution bi kese bi nañ teg constitution bi nan nañ teg policy yi fële moom lu mu wax mm. ndax UDP loolu lañ taxawal Gambia fi kon man si man rek mooy ne nañ view statement in a in a different perspective their perspective is their perspective waaye man suma perspective mooy ne statement was not proper Okay. statement la boo xamante ne it has a lot of content boo xamante ne police can investigate Okay. yeah I don't agree with any law boo xamante ne dafay criminalize speech but this statement is subject to investigation okay it's, it's a dangerous statement okay. I will label it as a very dangerous statement oh, okay uh, tere ñuy waxtaan si li nga xamante kii si nga xamante ne sax mu si code ba tey but this is just an analysis because um, story bi xewoon na bala ñu koo caaj loolu moo gënoon a tas nag pour ñu dugal si story bi ak yooyu waaye comme noonu lañ ko xamee and then Sabally will be uh, it's already charged moom ak Sonko yëpp te dinañ dem si code bi léegi ñu continuer si beneen story bu ñu am rek balaa ñoo euh, dugal si suñu waxtaan bi because ki nga xamante ni euh, soo leen fàttali soo leen fàttali wala leen soo leen di bàyyi xel commission bi local government commission bi ba tey mu ngee dox te fan yi ñu ngi woon si ñi nga xamante ne ñooy biir euh, Basse Area Council te si biir week bi am nañ fa ki nga xamante ne mooy seede bu jógee ba si area council muy maanaam internal auditor ku xamante ne mu ngi yëngu si wàllum koppar naka la moo duggee ak moo génnee ak yooyu noonu moom nag ah, demoon na fële na la ci demoon na si commission bi léegi ñu déglu story bi rek ñu ñëwaat su ñëwaatee rek gën si yaatal. Fatoumata M Sakho doonoon ab dajalekatu galag ca Basse Area Council ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett laata ñu koy tabbu ngir mu doona liñetukat ci biir barab bi maanaam internal auditor ka fa nekkoon CEO di Ousmane Touré moo ko taboon ci nangu toog ñëpp. Fatoumata Sakho la mu tontu ci ba ñu ko tabee mooy moom amul benn lijaase wala xam-xam maanaam qualification ba experience ci wàllum internal audit waaye ki nekkoon CEO bi moo ko xamaloon ne dinañ ko tàggat. ci kayit yi mu jébal commission bi bokk na ci bataaxal bés ko tabu woon maanaam appointment letter ak itam lijaasi bi firndeel ne tàggat bés ko tàggat lu ñeel wàllum liggéeyub internal auditor bokk na ci di saytu liggéey bi ci biir barab bi ngir fànq lu dëppoowul ak yoon ngir liggéey bi jaar ci yoon waaye li jëm ci wàllum faatumata moom liggéey bi daawul woon demee noonu ndaxamal na komison bi ne mbirum jënd yees di amal foofu ca barab bi du koy sax yëg ndaare du dañoo jënd ba noppi soog koo jébbal kayit yi. When they ay ci ba ñu indee payoor yi ci ay kayit ci la xamee ne fay nañu ko ba noppi def nañu ko ay yoon yu bari ci laa demee ci CEO bi dal di ko wax ci la ma xamal ne dina waxtaan ak director of finance payoor gi ci yow la war a njëkk a jaar ba noppi laata ñuy fay teg ci itamit nga saytu ko bu baax ba xam ba xam ndax ànd na ak kayit yi mu war a àndal for me to send them and stamp them. after they've already si daal dina xamal kuréel gi ginnaaw ba mu àggee jëf yu njiit li benn saafara. you have taken up with the CEO. E déedéet dakkul ndax amoon na jamono ci gannaaw. dooroon nañu di ma indil ay kayit bala ñuy def dara waaye loolu nekkul woon di demee ni mu war a demee ci ay weer rekk ñu dakkal ko. Yes. You, you don't see that normally in Basse Council? Yes, before. Before. Chibiko council bi laajee jafe-jafe yi ci biir barab bi maanaam ca Basse Area Council li mu xamle bokk na ci dajale dajalekatu galaj yi bu ñu dajalee des koy finance director bi di Lamine Suso Mariama Cham ci waaw kooku mooy madame Sakho kooku ba bokk na ci ñi nga xamante ne liggéeykat la fële ci Basse Area Council nekk internal auditor moom mi nag am na ñëw na wax ak council bi ne jël nañ ko si liggéey bi nga xamante ne moom sax xamut ko woon waaye nañ ko ne dañ dañ la train understand nga pour nga mun a defee liggéey bi ak tamit e, ñi nga xamante ne ñooy collecteur si maanaam ñi jël duty si marché yeeg ak licence justice si dañuy jël xaalis di ko fay ki nga ne mooy finance director bi te suñ seetee comme si si si lu waar loolu warul faa nekk finance director bi waruñoo dem foofu noonu di ko jox direct xaalis mu nekk loo xamante ne Euh, lu am am solo la maanaam many revolutions daal mu ngi génne si li nga xamante mooy commission bi euh, si Basse Area Council ba tey ba euh, su ma juumul ba ñu ngi samp si li nga xamante mooy Basse Area Council bi pour rek di leen seet waaw mu nekk lu lu am solo. waaw dafa am solo. Mhm. xam nga problème mooy nga lii dafa am this commission is very interesting. mu ngi tax sax ñu bari léegi na di bàyyi xel sax. Mhm. comme kii yi nu mu tuddee sax council yi. Mhm. si on est le ñu jëkkaay ndax moom council la woon liggéey na nekkoon na si council di liggéey xam na yu bari yu ci doxeel balaa mooy nekk MP mm-hmm. waaye tey ji nga jël koo xam ne moom dëgg la moom mu ne amul skill mm-hmm. ci waxaat ne sax xam ci li muy def ni wàllu audit mm-hmm. euh, lu mu ci xam bariwut waaw euh, am na mu ne njuñ njaay yu bari yu ci am yoo xam ne sax nee na maanaam dañ ko jiital di ko fakkastal ci moom lu mu wax maanaam teg nañ ko fa gars yi dañuy dem def lu ñuy def ba pare doog a ñëw wan ko te nee na wartu demee noonu ni mu waroon demee mooy dañ war a balaa ñuy def lañ bëgg a def dañ ko koy ñëw tegal ne ko lii ak lii lañ bëgg a def moom mu saytu ko xool ko su méngoo ak yoon mu ne leen ay war ñu def su méngooloo yoon mu ne leen déedéet waaye boo defee ba pare ñëw wan ko bu fekkee méngoowul ak yoon léegi ab ba pare tamit seen euh, finance directeur bi nu mu tuddati sax si moom ku ñëw tudd ko ku ñi ma gisagum ñu test eh, ñu testify ñëpp ku ñëw. <laughs> tudd na ne def nañ te luñ koy tudd yëpp eh, nekkul si ci ci lu baax. kon mi lay wan ne la daal suñu council yi tamit. Mm-hmm. Eh, commission bi am na solo xam nga waaye suñu council yi tamit traayuñ de. Mm-hmm. waaw bàyyi nañ seen loxo trop trop honorable xaw ma lan ngay jàngat tamit ci internal auditor bu Basse Area Council Basse Area Council moom dafa lëj. Mm-hmm. ndax si biir moom si boppam moo waxaat ne dañ dee boole benn këy ticket. ak ñaari kii foog naa Foroyaa ñoo ko bindoon xam naa ko si kii bi dafa naa Foroyaa ñoo indi woon ñu <laughs> dafay benn ticket mu jox ko maanaam Mariama di jaay mhm. man may jaay bu dañu ñëw rek tegal ñu ticket bi nañu ayo ma fay ten kii fay ten exemple laa joxe xaw ma ndax tendales na ñu fayee ko mhm. exemple laa joxe rek mhm. ma fay ten Mariama fay ten soo defee ticket bi ñoo ko bokk léegi beneen tan bi kon fu muy dugg parce que benn ticket rek moo fa génne so loolu tamit dafay niru nju njaaj am na fa boobu moom dafa mel ni sa waa su honorable ko moom foofu la focus xam nga waaw moom focus waaw su ko defee moom mu gën cee yaatal waaye kii moom dañ koo laaj comme si doxalinu council ak li nga dégg nii waaw basically sax council hmm. euh, si moom yàlla def na sax euh, select committee bi hmm. on regional government maay ci amaan bi ah, euh, actually comme affaire yi commission baa ngee dem hmm. te fu mu nekk nii yaakaar naa ni sax commission bi right now ñu ngi kon focus on Basse Area Council te gis nañ ne sax eh, Basse Area Council dafa tax sax eh, dafa over engage eh, commission bi so moo tax ñu ngi oo seen gars yi yëpp seen collectors yi yëpp ak whatever waaye comme nuñ ko waxee rek gis nga council sii dañ am solo torop te definitely council su doxut rek développement du am because soo ko xoolee suñ nekk council rek moo maanaam mooy ñoom ñooy ñoom ñoo jege askan bi si suuf te nit ñi seen rate si ñoom lañ ko dee fay directly boo xam ne ni danga koo fay directly mu dem foofu noonu pour ñu jox la service xaalis boobu noonu su nekkee ne dañ ko fay te mu nekkul si lu ay loxo yoo xam ne ni mënuñ ko manage wala ñu ngi see def ay njuut njaay loolu moom foog naa loolu euh, loolu manque manque bu rëy la te yaakaar nañ ne ni commission bi liggéey bu ñoo def liggéey bu rafet la mhm. te dinañ ko rafetloo xam nga euh, réew moom euh, bul mus a gis ne ni lii baax na tey because arrangé na la mhm. su baaxut because arrangé wul la ëllëg mhm. warut a demee noonu council bi fu mu nekk nii sax dafa gën a ee ñu bëri te loolu lañ si doon séentu te fu mu nekk nii lii dina tax sax council si gën a mun a taxaw because comme noo ko waxee rek jigéen bi euh, internal auditor auditor maanaam mooy ne council bi lu luñ mun di def si transaction financial yi moom dafa war a eeg soo ne ni yëpp mu tali mu nekk in order den mu mun a joxe approve am bu joxe approve si la gars yi dee mun a effect payments so waaye comme nu mu ko waxee ne dañoo def everything ñëw loolu loolu du yoon bu baax te moom tamit eh, du ma ko si mun a génne because lu xew yow su fekkee xam nga sa responsibility as an internal auditor yow xam nga ne before ñuy effect any payment dafa war a jaar si yow waaye léegi soo ñëwee si commission bi nga ne dañoo def everything eh, ñu ñëw wax la ko even though su fekkee ne ñooñu sax ñoo la senior waaye yow sa liggéey bi war nga a wax ne ni lii jaatut yoon. waaw mu ne wax na ko CEO bi. waaw xam nga xam nga comme yooyu noonu lii dafa am fu maa ñëw maanaam mooy ne. Mm. Eh, Gambia dafa am benn façon ni eh, minds yu ñu am maanaam your leader is always your leader leader bi even su wrongee you don't have to tell your leader di truth so lii nag daf ñu sonal torop because going to the CEO nga wokk ko defut anything then yow war ngaa mun a seet naka ngaay mun a def nga xam ne ni ëllëg yu mel ni su amee di nga am evidence ne. lii maa ngi ko doon complain even su fekkee ne wax kese munu because wax doo mun a justify loolu CEO bi mun na laa wax ne ni mosul ma ko wax. Mhm. waaye a ko mu nekk memo wala mu nekk document boo xam ne da koo fayal den time bii nii si commission bi munoon naa présent noonu ne mus naa communiquer te lii concern la woon. waaye Basse Area Council definitely eh, lu fa nekk du ma si du ma bugguma koo préem because commission baa ngi on xaw ma naka la moo eene waaye yaakaar naa ne so far so good eh, xam naa ne after elec eh, commission bi eh, dina mun a dimbale local government service commission pour ñu xam yan façon yi nit la ñoo employ pour ñu mun a jël liggéey council si very seriously so loolu am na solo te yaakaar nañ ne council si tamit dinañ jànga si lu nekk di dox nii pour ñu gën a taxaw gën a taxaw askan bi ñu liggéey because tamit blame eh, game moo fi dee nekk moo fi nekk area council si ak central government waaye ñii yëpp is very clear xanaa soo ne bugguloo xam waaye is very clear kenn ku nekk sa rôle ak responsibility you know it so léegi defal sa rôle defal sa responsibility central government dafa am responsibility am local council si am ko waaye su fekkee ne Eh, dañ isi politique bi si biir because right now loolu moo fa nekk politique bi daf ñu sonal bi nga xam ne ni eh, local council si ak central government bi competition moo war a nekk seen diggante te dëgga dëgga to be frankly speaking even man tey nii bu ma nekkoon mayor ah I will do everything possible to collaborate with the central government to achieve my development goals for my people not about me why for my people who elected me so lii foog ñu understand ko so yaakaar naa ne commission bi baax na mm. eh, te dinañ gërëm commissionnaire yi eh, witness tamit yuy ñëw ak ñu war a ñëw yëpp dinañ leen gërëm nañ meeg sonné rek ñu wax dëgg bi at the end of the day we see the way forward mm. waaw mu nekk si yangu mm-hmm. ba Mariam moom ni nga ko waxee rek moom mu ngi focus ci commission uh, bi daf fay dem uh, Euh, di xool bu baax xam naa moom dina gën a mën a yaatal si yu bëri su ko defee Yankuba lan ngay jàngat rek ci Basse ndax fi mu toll ni Basse lañ toll te doy na mhm. ndax ku ñëw rek dina indi réflexion yu bëri yoo xam ne da ngay téye sa gémmiñ gi sax ne lii mi ngi xew si euh, ci barab bu mel ni euh, Basse Area Council te daanaka doo daan xam nga bi lii amutoon doo yu mel noonu waaye ndekete yooyu yëpp mi ngi mi ngi ci biir so ci wàllu internal auditor bi yi mu wax noonu yëpp ak affaire yi mu ci reveal yëpp tey ban analyse nga nga ngay def si situation waaw comme euh, internal audit unit bi dafa important trop si council si euh, local government audit ak finance act bi of 2004 moo ko create waaye unit la wax waaye parce que ñoom kenn lañ am kenn te kenn boobu noonu sax mënul liggéey ah. dafa daf ko nangu sax mu ne ne man mënuma liggéey waaw nu mu mënut liggéey bi tamit am na lu mu xam moo ne at least anything bu war a ñëw eh, moom moo war ko moo ko war a approve waaw mu ne dañ ko daan hide from him reform has sorry kon dafa mel ni comme euh, système bi in place mooy ne na ko def rek si may ma ma man loolu laa ko gisee. waaw dafa tur bi nekk rek. waaw ah. because yoo xam nga ne. Mm. every transaction boo war a def you need GPPA approval da nga need to fill GPPA forms. Mm. dafa am process yoo war a jaar ba internal audit yëpp yoo xam nga loolu waaye yow nga nekk njiit maybe CEO finance director because naa leen signatories rek ngeen sign check rek ngeen liggéey ko te moom du after payment ngeen ko indi si moom moom sax xamul liggéey bi waaye mu ne time mu na daan protest di ko daan approve am na yoo xamante ne dafa kon yow dëgga dëgga commission bi lu mooy def nii school la boo xamante ne man mii ku toogaa yéen man xaw ma woon council lu fa doon dox xaw waaye nag wi di bu ñëwee GPP di ñu wax sàkku maalo Kasum ñaanal nañ ko day jëndee. Ah, ak Siemens ah. ak even air condition ak Fana Fana benn Fana nine thousand dollars. kan yu màggee. ak Sakku Malo six thousand so yëpp dafa jàngal eh, nit ñi ñu ngi coono jigéen yi ku feeñ ku ñëw si marché bi. first thing soo demee si marché bi tey tey wala ëllëg suba teel soo demee foofu. da nga gis jigéen di xëccoo ak KMC police. waaw dog doguma la the way they do things sometimes comme ñu dee collect duties in they are so harsh on people. like da ko dee mën a witness sax da ngaa dem ma ne mu sànni la kayit bi. ma ne gaaw jox ma de damaa dem mu ne la déedéet xaaral jaayaguma sax at least mu ne de time de aw time. wala léegi sax léeg-léeg sax ñu ñëw sax sànni ko si digg bi ne aywa na ñëw. ma ne ñetti nit sax kii ñëw ñaar ak ñetta sax da ngaa dem rek moto yu ndaw KMC nii yóbbu ko jigéen ñi soo demee si marché bi ñu interview nañ gaa ba sonn jigéen ñi di complain di complain te lu tax ñu ne laa defal loolu mooy ne ñu ne because ñu ngay jaay si yoon bi on sax mm. waaye ñoom seen ten dollars yi boobu noonu dañ ko fay for service one service ngay jox gars yi ñoom amuñ toilette mm-hmm. amuñ séed amuñ dara ñu ngay góorgóorlu di jaay si yoon bi ba léegi nga laajte gars yi ten dollars électable nga ñëw nga daxa gars bagage yi nga yóbbu ana seen ana bi te procurement si sax moo gën a garaw yow yaa ngi jënda par exemple fan fan bi am na loo war a def mais bi danga ko war a publish wala nga single sourcing yow nga nag nga def everything single sourcing ba sa area council ñu ne la ne um, most of the people contractors yi chairman bi moo leen indi chairman bi waxuma la CEO bi chairman bi moo leen daan indi ñeneen tamit CEO moo leen indi finance director moom mu ngay fay si un personal account am mooy alatintu so ba sa si school waaye su ñëwee si yeneen tamit. dina mm-hmm. nekk school ba man programme mu bu GPP ñëwee fa moo daan one month GPP di ñëw fa. exactement mu garaaw ñii tamit ñi ngee ñëw Basse mu ngi ñëw. kon ñeneen ñi fu xaalis bi gën a bëri ñoom BCC ñoom KMC ñoom Brikama Area Council ak Kerewan yi yëpp borom place yi am xaalis noonu. Mm-hmm. Ah, kon foofu nag Gambia si Gambia si dañu war a bàyyi xel. soo soo maanaam balaa ñuy demaat si beneen story si mbiri council xam nga. bi ñuy set up kan euh, commission bi. Mhm. Euh, coow li woon na it noon waaw ñu bëri ñu ne jaru ko woon it's not necessary. Euh, waaw ndax lu ci lu ci tax tam mooy dañ fi gisoon TRRC bi mu jeexee recommendation yi white paper recommendation ñëw ñu gis ne daanaka implementation bi dafa nekkoon problème jaani commission ñëw fii ak yeneen ñu bëri nag jàpp ne est-ce que commission bi tamit bu ñu demee ba gis lii yëpp ndax tamit lii foog moo ñu war nañ koo tolérer li xew euh, Basse ñu gis muy muy am def naa nekkul lu a tolérer euh, GPPA lim lim siiwal euh, ci yi nga xam ay njuuj njaaj la mhm. nga war a ñëwaat tamit ci yeneen ak auditeurs yi tamit waaw lu ñu ci li nga mhm. xam ne ne njaaj la mhm. def mbir la képp da dañ la ci jàpp am na lu yoon war a def ci yow waaye bu fekkee def nañ loolu yëpp ba commission bi teg ay recommandation am ne lii ak lii laa santaane Basse Area Council lii laa wax ne nañ nañ leen def lii lii mooy recommandation yi naa fële lii mooy recommandation bi ginnaaw bu pare gisuñ dara luñ ci luñ ci implement est-ce que kon jaroon na ressources yu ñu jël nii yëpp ndax commission bi set up ko euh, xaalis la mm-hmm. waaw ñi fa nekk commission yu nekkuñ fa noonu rek ne dañ bëgg a Gambia di liggéey déedéet ñu ngi fayeeku waaw soo léegi bu ñu setobee lu mel nii ñu dem ba si cappaandaw gi amul benn euh, euh, kii nii ni ñu ko outcome euh, maanaam wàllu implementation ñu impact mu impact li nga xam ne mooy non anga anga foofu waaw liggéey central government comme implementation commission bi dafa am mandate suñ pare gaa suñ pare seen liggéey bi mm. foofu la moo em mm. waaye comme noo waxee comme sabotage moo njëkkee waaw xam nga lu nekk sabotage suñ njëkkee rek mm. comme ñu laa wax ne lii huit la ba jaral mayo bi dem court mm-hmm. waaye yàlla def unit mairie mm-hmm. Banjul waaw last year sax government bi dafa war a bëggoon a def loolu mooy ministerial task force mm-hmm. commission ñu oppose ko si code bi code bi mu ne déedéet loolu mënut a ñëw because ministre bi ni nga ko uh, teeraloon àndutoon ak loi waaye commission bi une sorte rek seen mandate bi mm-hmm. dafa ne mooy to review mooy financial administrative activities of the councils ba pare waaye ñu koo def to enhance accountability en transparence xool foofu la. waaw implémentation dañ ko a review rek. mooy nekk loolu lu moo tax document yi ku ñëw rek. Mm. loo wax ñu ne am nga seede. Mm. ana voca mm. ana evidence yi indi ko. so ko indee ñu review ko ba pare. waa ñoom ñooy def waaye recommandation yi ñoom tam waaw recommandation tamit suñ ko defee léegi for the citizens mm. mooy CSOs e yi am nañ walla ñun media mm. bi am nañ walla mm. politicians si political parties yëpp am even ordinary Gambians yi ku nekk am na walla pour ne demand make demand nga pousse nguur bi nañ ko implement waaye commission bi moom seen mandat bi dina jeex to foog naa loolu laa foofu mooy problème bi foofu mooy problème bi waaye tamit honorable lu mu wax fii ah, moom liggéey na fa xam na council importance of council bu time Jawara ba tey am na soo Gambia mos naa def review of the activities of the councils mm-hmm. waaye suñ ko defee léegi ni si man mm-hmm. te suñ ko reviewé mu méngoo ak jamono bi mm-hmm. nañ gën a gis ne lan la ñoo yokka lan la ñoo ak lu ñoo def ba xam ne council si dañaa dafaa nekk vibrant councils mu ne council si doxut développement bi am mooy dëgga su doxut rek développement bi kon dañ war a bàyyi xel council si bàyyi sabotage bi waaye nag am happy nag léegi nit ñi ñu ngi seetaan ay tiktoks di ko def tiktoks di ko dog di def TikTok te xam nga Gambien si ñu bëri TikTok ak Facebook ñu ñu binda positive things man gën naa gis négative sa comments uh, about the commercials because nit ñi léegi gis nañ njëriñ bi satel nit ñi moom gis nañ impact bi Mariama uh, ku ndax gis nañ nit ñaa ngee xam ne ah ok moo fa xew man uh, problème bi mooy nit ñi léegi mbaa duñu am disappointment bu ñu demee ba mu des ci central government bi ngir mu war a implement mm-hmm. ndax ñu ngi wax xam nga booy def dara da ci seet c'est euh, interest of your party wala whatever mm-hmm. euh, so foofu laa doon waxe waaye xëy na this time euh, changes dina am central government bi ñu implement recommendation yu jógee si si commission bi ndax lii lii fii xew nii moom war naa am dara loo xam ne dinañ saaf lesson ñeneen ñu fa nekk wala ñi nga xam ne sax ñooy waaj a ñëw fa ba nga xam ne ne mbir mi dinañ ko teg ci yoon nit ñi mën cee gisee ndax réew mi tamit dafa war a tege ci yoon ndax 60 percent bi sax mu ngi delluwaat ci nit yi. dara delloo ndax tey yow every ah. day yaa ngi collect duty from Monday let's say to Sunday mm, right. Mm, mm. ok ndax loolu noonu mu ngi delluwaat parce que léegi da dem si marché yoo xamante ne like you don't even call it a market. nañ jëlan exemple to Costa ah, sa nit yi dee jaay si kaw tali imagine na léegi um, syndicat def marché mm-hmm. te syndicat lopitaan mu ngi fa. Mm-hmm. léegi su fekkente ne suba teel boobu ñëpp a ngi war a génne jigéen ñi biir. forêt def na si story léegi foog ñu clé yoon boobu noonu pour ambulance bi mun a génne. yaa ngi gis like ok léegi te loolu noonu yëpp council bi ñoo ko war ndax ñun tamit ñu ngi try pour régler marché Serekunda moom suba moom dafa dem nga dox su fekkente ne da ngaa dox si yoon ba taalal boobu dem ba boori black bucket yooyu da nga am five minutes si yoon because di nga ànda di nga tasee moto si diggante bi mm. jaaykat yi da ngaa gis moto bu ñëw piip dañoo pousse te loolu yoon yi tali la loolu kenn waru te li ma li ma jaaxal xam naa xam ne loolu nañ ci wax ci kanam mm. mooy xam nga ñu ngi war a génnee foog naa tatiet septembre mooy mm-hmm. deadline deadline bi ñu génne ñu dee waaw route yi ñu dee jaay ci uh, kawt yoon yi noonu waaye ko ñom ñoom ñu ngee fay juti exactly kon dafa mel ah eh, naa laajte mayo bi loolu man mayo bi ku fi nekk mm. def naa ko interview te mu ngi si foria suñu website bi sax ku ko bugg mu nga ko gis fo maa ngi ko da ci about space mooy street vendors mm. gamé street vendors ñoo ëppa mm. ñu nekk si biir interview na sa si eh, manager market bi waaye nit ñi kuy jaay si yoon bi nekku sagwam. dëgg la loolu leen war a clair kuy jaay si yoon bi kenn bëgg na jaay si doon ni naaj. Hmm. at least you need at least foo toog nga jaay. Hmm. waaye su nit ñi di jaay si marché bi force day marché bi dafa fees duñ ko dee nangu marché bi dafa fees. Hmm. seconde dafa seer. waaw dafa seer ñaar la. kuy jaay kuy uti one fifty two hundred three hundred et. nga ko yow nga jël cantine cost thousands. kooku naka la mu koy fay te doguma la sa Yankuba dafa am ñoo xam ne interview dafa am ñoo xam ne tamit ni ñu dee def si marché yooyu mooy man damaa am xaalis man damay nekk borom alal damaa dem jël ten cantine si benn marché man maa koy moom. Mm-hmm. di ko joxaat nit ñi di leen di leen di ko luye. mooy Soblent. waaw noonu bari na boo demee Serekunda am na fa boo demee Latrikunda market am na fa boo demee Birkama market am na fa da gis koo xam ne am na fa five to ten euh, cantines yoo xam ne moo ko moom moom mooy everywhere moom mooy ñëw di fayeeku

dafa am ñu si dëgër bopp na soo demee si biir marché bi place am na fa de ñoom ñoo ñoo ree tey taxaw ci ci yoon bi xam nga tamit waxtaan wax dëgg daf ci bokk ñoom marché bi am na space nekkuñ fa soo demee si biir marché bi benn bis mos naa fa ñoom ma ne leen yéen marché bi lan moo ko dal bu fekkee baaxul ngeen wax gars yi ne baaxul ñu defaral leen ko ngeen toog fa waaye fi ngeen di toog nii benn borom oto bu bu bu doy waar moo fa doon romba hmm. bi mu rombee maa ngi toog ak benn waaye ma ne ko borom oto bi moo nekk si dëgg de ñii si mhm. ñii si kaw tali bi lañ toog mhm. waaye gisuloo gars yi dañ mujjee génne seen ba ñoom nag dañ madame dugg ba ci biir marché bi gis ne marché bi nag am na place ñoom ñoo fa a ñoo fa a wax si lii mhm. nga wax ci léeg-léeg waaw boobu pour mu dem si kanam foog nit ñi am discipline su ma ne discipline waxuma ne Gambie amuñ discipline waaye xam naa ne discipline mooy tax suñ la ne loi lii la wax nga topp ko nga nangu ko waaye su fekkee ne eh, amuñ discipline bi rek because soo ko seetlooyee council si am na place yoo xam ne dañ leen dee wax ne ni ok fii waru leen fee toog waaye nit ñi dañoo gis ne ni foofu lañ mun a toog pour ñu mun a am client mm-hmm. waaye foog naa comme noo leen ko waxee eh, lu bari mu ngi si council si comme man nekkoon naa council mm-hmm. understand comme sobletin yoo leen doon wax loolu réalisé nañ ko at the level of the bañ si jéem a taxaw def si ay taxaw xam nga rek effort xaw ma fu mu nekk naka la waaye so xam naa ne ñu si moo daan wool so xam nga nit ñi <laughs> dañ war a innovate mm-hmm. su fekkee ne nit ñi a ngi fay juuti tendala si mm-hmm. te dañoo lal sen saaku wala sen malan teg si bagas. bagage is a very simple thing mun nga initiate a very simple technology boo xam ni eh, every every vendor mun nga ko mun nga ko créer nga ni dafa ñëw simple tabulam boo xam ne ni mun na koo téye dema moom kër ñëwa moom kër du diis su ñëwee rek daf koo rek ko fa su amee toogam bu ndaw tam mu toog su paree rek daf ko dajale nii rek yóbbu soo loolu council si mun nañoo dugga si yooyu nga gis ne ni soo nekkee vendor da ngaa register ñu am sa data ana léegi des na naka lañ ko joxee ndax ok dañoo ne ok léegi eh, su fekkee ten si la exemple table bi tendala dalasi hmm, exemple laa joxe mm-hmm. léegi dinañ ne ok council bi mun nañoo def lii yow nga fay lii soo léegi dafa dépend yow nu ñoo defee payment arrangement bi waaye du war a warut a seer because da gis ne ne yooyu noonu is more hygienic because tamit in other way round nga dem teg sa vegetable si kaw suuf su tawee sa kantumaa si nawet bi affaire yi tooyte bi dugga foofu noonu soo foog naa maa ngi appeal to councils these are technologies yoo xam ne ni is a simple thing te mun nga koo am sax within the Gambia, you can use the, the Gambian talent mm -hmm. to even have it. No matter, because having a Gambian with the way we think all the time, then they finally munuta nek. Nyon swing population is very small. Understand? Why pour nga address the issue of the vendors pour ñu mëna in a very comfortable place. Amal ñep register ñep amal len just dafa nek specific size du wara passer out 1 meter. Mm -hmm. understand nga you just come it can be a plastic type. Mm-hmm. xam naa foog naa di ngeen understand yu ma min da nga koo jël rek. da nga ko fold ngay fold rek teg ko. Mm-hmm. nga teg fasalifin bi yow nag mënuloo jël anything loo xam ne is beyond that. Mm-hmm. and every vendor should be entitled to one. so loolu suñ ko defee da ngaa gis ne it will be more organized. understand nga. tamit ñu identify su fekkee council si identify nañ ne ok area bi ni yoon bi mun ngeen koo use that's fine waaye suñ ne buñ ko use tamit nit ñi tamit vendor yi mm-hmm. waruñ koo use waaw comme mooy organisation bi waaw mm-hmm. mooy they just must have to organize because these are local people and they are grassroots people mm-hmm. te definitely some of them foofu la ñoo amee pour ñu mun a fay seen doom yi mun a dunda ak yooyu noonu so ñoom tamit we must respect them. in fact it's the responsibility of the council su fekkee ne bëri na ñu seet yan jéego la def. pour ñu gis ne ni eh, xam nga rek seen njaay bi ñu am protection foofu noonu ñu am xam nga rek safety. because it's very important comme loolee na wax nii comme ñu nekk si yoon bi. Hmm. it's not safe. for them so lii yëpp nag foog ñun yëpp ñu nangu. waaw waaw foog ñu nangu rek xam nga euh, ñu nangulante daal Wow. Uh, uh, that's, um, that's it for the council and uh, we are going to matters of the National um, Assembly because um, suñ seetee suñ the xel tamit ba ñi nga xamante ne ñooy jëwriñ yi uh, answer questions. While wala come, um, uh, comme ay um, National Assembly You come commencé ko the interior Minister because last year we nga xamante ne standing committee on human rights and constitutional matters Uh, demoon nañ def tour six day tour pour rek seet uh, comme prison yi nii ak yeneen yeneen jumtuwaay yi nga xamante ne comme uh, yi fi police la daal ak yooyu ñoom nag defoon nañ seen report jox ko nga xamante ne mooy ministre bi ministre bi nag ñëw pour rek tontu si li nga xamante ne mooy findings yi nga xamante ne um, comité bi am nañ ko ñu dem dem ak story boobu ñu ñëwaat. barabu alkaati yu bari ak barab yes di téyendi nit ñi maanaam detention facilities yi bokk na ci kuréel gi ngànk wàllu àq ak yelleefu doomi aadama ci pencum ndawi réew mi maanaam standing committee on human rights and constitutional matters bokk na ci jàmbat yees leen jàmbatal ca barabu alkaati ba ca baara mooy nekkuñ di sàmm wanteel ak li luwaa bi wax ci boo téyee nit warul weesu juróom-ñaar fukki waxtu ak ñaar maanaam 72 hours jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi maanaam minister of interior daal dina xamal pénc mi lu waral léeg-léeg ñuy téye nit muy weesu juróom-ñaar fukki waxtu yi ak ñaar tontu na itam ci ñàkku waruwaay ngir di jébal saay-saay yees njort. Bara police station was visited. barabu alkaati yi ca baara nemmeeku nañu ko man nag damay xayma mbir mu ne ci wàllu juróom-ñaari fukki waxtu yi ak ñaar ci les ëppal téyendi gi jox nañu ma ay leeral ci ne léeg-léeg ñi duñuy faral di matal sartaay bàyyim niggandiku yi moo waral ñu leen di téye lu ëpp waxtu yooyu wàllu di leen yóbbu loolu nag day faral di diis ci suñu kaw moo waral banqaasu nguur gu yor biir réew mi di sàkku ci nguur gi ci wàllu jumtuwaay. To cater for more resources so that many stations are catered for. ci jafe-jafe yi police di am moom jëwriñ ji daal dina xamle ne am nañu bor bu toll ci fukki million ci kopparu dalasi ñeel fuel maanaam fuel debt ba noppi daal di dikk ak ñoom ci dépasse police yi ci wàllum uniforme. Government fuel allocation for the GPF cannot cater beyond six months. nguur gi les di nattal alkaati yi ci wàllu fuyal mënul yóbbu alkaati yi ci lu weesu juróom benn weer ci jamono yi alkaati réew mi xam les na ne yore na bor bu ëpp fukki million ak benn ci wàllu uniforme li nguur gi di joxe mënula fàggul ñépp loolu ci kaw alkaati lay gàllu ma wax leen fukki million ak benn bu toftal juróomi téeméeri junni teg nañu ko ngir uniforme uh, personnel we I jëwriñ ji daal dina duppee liggéeyam ngir amal kaaraange ci biir réew mi ak jafe-jafe yu bari yu ñuy wanteel ci yoon wi. The Ministry of Interior being a key player in the security sector reform governance. banxaasu nguur gi yor biir réew mi doon na kenn gu am solo ci wàllu coppite kaaraange gi ak itam coono ak jafe-jafe yes di jànkuwanteel yépp ngir aar askan wi banxaasu nguur gi yor biir réew mi ak ñu ñuy lëkkalool def nañu jéego yu bari ci samp ay barab ak itam ci wut ay waruwaay ak itam ci wàllu doxal yoon ngir bàyyi xel màggug askan wi ak itam nu coppite di amee ci wàllu considering the growing population and changes changes in the security dynamics. alkaati réew mi ñoo ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe rawatina ci bu ñuy amal ay opération jëwriñ ji xamal na pénc mi bokk na ci ñàkk dépasse bu mat ci wàllu feel uniforme ak yeneen ngir gën a mën a ñoŋal seeni liggéey Mariama Thiam ci xibaar yi. waaw kooku moo nekk euh, jëwriñ ji amee wàllum intérieur maanaam. Euh, policier yooyu noonu fii nii ci biir réew mi demoon na tontu euh, report bi nga xamante ne standing committee bi on human rights and constitutional matters defoon nañ ko euh, si waxtaan bi euh, si report bi gis nañ ne comme euh, buñ demee si yeneen police station seen luñ dee jàmbat mooy 72 hours si maanaam am na ñoo xamante ne leen di téye more than 72 hours waaye ministre bi mu ngee wax ne loo soo gisee loolu dee am ñu si bari duñ dee mun a duñ dee respect seen béel yi maanaam dañ leen di war a béel duñ am ñu leen béel wala euh, duñ am kenn ku ñëw pour bële loolu moo dee nekk li nga xamante ne moo tax ñu bari dee spend foofu noonu euh, more than 72 hours parce que loi bi dañ leen de suñ la jàppee between 72 hours dañ la war a bàyyi wala ñu caaj ak tamit police station yi because euh, Baara mu ngi wax ne dañoo génnee police yi Baara bi yóbbu ko eso parce que Baara amul space Baara dafa xat ak yooyu noonu mu nekk loo xamante ne wax na fa daal lu bëree bëri waaye façon yi dañ ci dee wax ne comme nga national security security matters yooyu nag moo tax duñ si di mën dem uh, di because loo xamante it's a threat to national security rek dañ si di xalamandoo yooyu noonu um, mu nekk lu lu am solo um, yaa ngi suma njëkkee eh, gëm si yow. waaw comme uh, human rights committee bu ñu daan présenté report bi maa national assembly. Mm-hmm. the findings were really the real situation of the stations. Mm-hmm. bàyyiñ dara comme exemple si toilet conditions si. prisonniers yi ñaata lañ sorry inmates yi hmm. ñaata la ñoo jox gars yi ndéewoo añ ak reer for naa fifteen dollars la suma faatee the whole day loolu mooy their entitlement mooy loi boo xam ne depuis time colonial time amee nañ ko ba ñoom sax def nañ recommandation ne nañ ameen boobu noonu te wax nañ tamit like euh, nit ñi tamit di lañ yóbbu comme man dinaa disagree ak ministre bi parce <laughs> que ministre bi lu mooy wax ne some people amuñ bill loolu it was not I am na ñoo xam ne dañ day génne gars yi state police yóbbu leen directement tout ça fekk jaaruñ court. Mhm. ñoom ñoo dee am yooyu jafe-jafe yooyu fekk xam nga da war a dem si court bi magistrat mu am pass ordonné dañ leen bail suñ la soo amul bail ñu remand la xam nga boobu moom you are under a process mooy ko judicial detention mhm. waaye police ñooy ñoo fële seen station yóbbu la direct tëj la. Munsan mm. finance findings, I can still remember that finance boobu maa ko bindoon sax mm-hmm. so man su ma gis-gis si lii moo ne ministre bi findings because the finance Gambia am na human rights commission am na one step léegi because human rights commission dañ ko establish for the promotion and protection of human rights mm-hmm. waaw Legi, su fekkee am nañ boobu léegi nañ ñëwaat back to the institutions am nañ police police are responsible for the internal security then they detained, arrested. So what are the conditions? Minister, the former Minister of Interior, Yankuba Sonko, like mu sometimes some prisoners may commit suicide at you. So some of the things then they man then they buy cells alone. Why not the cleanliness of the cells? Ministers will have addressed that. The cells are dirty. There were many any station fee. How US Navy, US, them are going Why, station C, they dirty. because yow phone nekk ngay saben léegi-léegi nga dégg prisoner di wax police ne dama bëgg a saben police mu ne la neen yaay na dafa busy so prisoner bi am na they have force there am na station bu nekkoon fii ya. all you know maa hmm. ngi wax loo xam ne man dama ko dama ko dama ko gis dama dama mën naa wax xam dama ko expérience laa mën a wax xaw ko na ko fekkee dama nekk maa ngi si biir maa ngi si biir seel bi gis nga waa ji ndeysaan su bëggee naan am na benn ñoom fu ñu dee parce que amuñ saweekaay fu ñu dee sawee ñoom waaw boobu la dee jëlee naan ko eh. mooy pot boobu noonu pot bi ñu dee sawee waaw dafa am saw moo fay nekk boobu lay jël naan so ministre bi foofu la loolu la waroon a adresse mm-hmm. how do you improve the condition of the cells how do you ensure that yaa ngi respect rights si nit seventy two hours is not a question it's not a question like amuñ am nañ béel amuñ béel de laahi koo fi téye am na mbokk ko bu war a béel ministre li mooy wax ni man gëmuma ko su fekkee am na ko nekkul si report national assembly bi kon moom fan la ko jëlee man boobu dina jaaxal na ma ko man ñun sax bu ñu demoon ak TRRC TRRC bu ñu daan def euh, euh, too si mile two ak yooyu mm. lu met people ñu ñu laa wax ne ñoom ñu ngi fa ila bi moos mosu ñoo dem court interest you can que am nañu am na tamit yu ñu mooy. Euh, bu yàgg man am very happy with National Assembly their findings. Mm. their issue bi. Mm. loolu moo tax bu ma déggoon loolu rek man na Assembly gaaw maa dem foofu because am na fa report waaye boobu man maa dem ma ne bii am na interest. Mm. ma dem ma cover ko li ñu wax yëpp ma bind ko ak ay remember ñoom Yakumba Jite di fight ak ministre bi sax wax ma la fight si loxo mooy. Mm-hmm. ay ay di ko wax. wala sax so ministre bi loolu la war adresse man loolu a gis ministre bi loolu la war adresse daan di ñu wax ne soo gisee ne di fa nekk seventy two hours amuñ ku leen a béel mm-hmm. xanaa ay gan la koo fi téye rek am na mbokka mm-hmm. comme man ko moom ministre bi lu mu a waa lu fa nekk di di gërëm nag euh, select comité bi mhm. euh, defe ne def nañ liggéey bu rafet euh, under the chairmanship of honorable Madi Cissé definitely moo vice am bi honorable Suwaybu Touré definitely actually report bi ñëwoon na lii nañ ko te gis nga report bu nekka because dafa nekka dañ demoon defi oversight te oversight mooy ne dem gestu seet loo xam ne ni ay manqué manqué la or whatever so loolu la ngay jël ñu def ko finance léegi finance yooyu noonu moom ngay jël nga analyse ko nga def sa recommendation te def nañ recommendation te recommendation yi yëpp dafa dafa tegu si yoon mm-hmm. maanaam mooy ne bu jàppee nit tey nit mun naa nekk criminal ëllëg mu nekk ku baax mm-hmm. so te eh, especially da nga ko def pour doomi réew yi ku ku jéegi luwaa bi luwaa bi su ko téyee nga denc ko fa ona saa nga ba balaa luwaa muy xam nga muy found guilty mhm. so lu demee noonu wax nañ ñu condition yi eh, seel yi ak prison bi nu meloon dafa doy waar te loolu ñun yëpp xam nañ ko te warutoon a demee noonu waaye according to our recommendation dañ wane ne ni sax eh, cells yi prisons yi yëpp dafa war a dafa war a uh, clean mm-hmm. te dafa war a am enough ventilation mm-hmm. te eh, xam nga inmates la wala prisonniers ñoo xam ne ni téye nga leen at least especially si police yi 72 mm-hmm. eh, hours bi loolu loi moo ko joxe comme lu ñuy wax rek xam nga eh, bul jël ne man ok SO la wala njiiti police la ok I can do anything loi bi lu ñu wax rek nañ ko nangu. ñu def ko because definitely fii moom ñoom ñëpp xam nañ Gambia nu mel comme nu ko suma broda waxee suñ téyee sa nit moom. Hmm. Eh, definitely eh, ñëpp ñëpp a ko dee yëg famille bi yëpp ko dee yëg so pour ñu ñëw béel la. Hmm. Eh, in fact the very day bu ñu la téye nit ñi suñ ko yëgee dañoo ñëw pour béel. bañuñ soo mu nee nga bañ waaye 72 hours bi waru koo ràmba mm-hmm. war ngaa mun a def dara within 72 hours pour nga alaaw nit ki mu am béel mm-hmm. so loolu dafa nekk loo xam ne ni am na waaye yaakaar nañ ne ni léegi because of the recommendations eh, gis nañ eh, police yu bees yi tàngoor bundung eh, ñun bénéfice nañ si mm-hmm. definitely seel si karoon nañ ko def nañ fa faan man sax laajte naa leen lu tax defu leen faan si biir ñu ne noonu is for their own safety Why fund is outside the cell mhm. so the buloo blue modem severe. so cell yi the war clean dah mhm. number one because pour clean cell jafewut ida nga use sa own cleaners yoo xam ne danga leen dee fay wala sax prisoner bi si boppam use mhm. pour mu defal cleaning boobu in a form of whatever loolu yëpp is is possible parce why cell waruta tilim because ñun ñëpp xam nañ to the Western world, whatever, though <laughs> resources du benn waaye in terms of human right xam nga ak nu ñuy fonkee nit xam nga human right legi-legi, dañ ko dee téye yëfi tubaab waaye ahabu domi adam wara am te even susun Quran bisa sax si boppam mu ngi fa soo jox ko axam mhm. onasa nga mhm. nga defar ko mhm. waaw so yaakaar naa ne ya, président si yëpp loolu am nga balaa ñu jeexal si bëgg a wax Euh, soo demee si yeneen réew yi da ngaa dégg euh, ñuy wooyee seen prisonniers maison de la correction maanaam. correction problème boo xam ne dañu lay correction mm-hmm. mm-hmm. euh, waaye léegi ñun Afrique fii problème bu ñu am mooy da ngay gis ndeysaan ku ci génne kasu sax di ko ndamoo ndax mm. dañ lay def dafay mel ni kaso bi daf lay yokk nga doon criminal da ngay mm-hmm. génne ne man jéel laa tëdd ragaluma rey la ah, fii sax dama delluwaat fa sama yoon nekkul si parce que nuñ la fa téewee moo tax dañ la jàppee ne criminal nga gën di ko def sa bopp ba nga yow tamit nga def sa bopp ne man loolu la su ma génnee tamit loolu lañ may xoole waaye bu fekkoon ne dañuy jàpp ni di la traité ne la yow doo ku bon de da nga mistake ñu indi la fii pour wan la ne lii nga juum fi nga jaaroon du foofu yow soo génnee loolu ñu ngi lay defar ba nga xam ne kon soo génnee danga xam ne ok man société bi ma nekk fi ma nekkoon du foofu man fii laa war a nekk waaye suñ prison yi dafay mel dafay gën a yàq sax ñu ñu fay nekk loolu nag faaw ñu ñu xoolaat ko mu doon loo xam ne correction centre la war di nekk nga xam ne ku fa dem soo fa génnee sax la ñu ne eh, kii dee suñu yëgoon mu gaaw a dem foofu ndax dafa génne rek doonaat beneen nit waaye beneen bi tamit da génne rek sa bopp bi automatique la naan da ngaa génn ñëpp ragal la léegi da ngaa koo xuloo sa li nga koy njëkk a wax mooy tëdd naa piscine ñaata weer man fa rey la fi delluwaat fa laay def soo kon dafa am lu ñu war a gën a mën a def daal pour nga xam ne mhm. suñu prisonnier bu nekk foo xam ne ministre ministre bi mu war a tontu dafa war a waroon a nekk tontu national assembly li ñu fine mhm. very interesting yooyu la war a tontu spécifique moo naka lañ koy solver ña ah nga comme yeneen ministre dañ laa wax ne we are looking for fundings ak yooyu moom sax mu wax ñu ne eh, léegi in fact police stations yi bari neen am nañ for example maybe am nañ 200 police stations in the Gambia mm. te ñun nguur bi amuñ doole pour defar yooyu mm. waaye nañ uti xaalis within this um, time ñu def make sure ne mu ngi clean yii la these are the positive thoughts we will expect from him Well, National Assembly, they, did a very good job right, about, about, about, this. Yeah, and, and about Phil as well. He said um, the Gambia Police Force is owing over let's say, I, if I'm not million. mistaken, 13 million dollars is, I don't know, no, 11, 11, 11 million, million fuel debt because, uh, because of the budget allocation. Can you imagine? Oh, like, oh, okay, oh, like this is the police force mm. and hmm. they need um, fuel, they need good cars, pursuing operation. Yeah, because every day they go out on operation. More mobility. Be. Exactly. Mm. Yeah, when the government so, be, they jobs, you want fuel, month to for six months. Six months. Well, I, I that is, he, he can, National Assembly, mm. they want to negotiate. National Assembly allocate budget. Eh, eh, projet eh, naka la suñu naka la how to say suñu engineering ministry bi engineering national assembly mu am stakeholders discussion I believe they will, it will improve exactly xam nga the thing la de waxtaan la the inspector general police bu Sanya mhm. bu mu demee too ñëwoon na bundu bu mu ñëwee amoon na lu ma ko jot a wax ma ko ne gis nga dafa am yoo xam ne soo leen na wax ay jafe-jafe xam ngeen seen jafe-jafe mhm. try leen by all means situation bu mu musa tax ngeen ñaaka isi jafe-jafe yi because boo leen ko isiwul duñ ko xam isi leen ne lii ak lii ak lii mooy suñ jafe-jafe léegi dañ bugg a dañ bugg a budget pour nga gis ne suñ opération si mu am isi leen ko la ñun anything loo xam ne nii it has is is good mhm. eh, dañ koo approve waaye léegi-léegi tamit eh, benn jafe-jafe tamit am na te part of our FPAC recommendation maanaam mooy ne eh, comme allocation si suñ ko joxee suñ approuvé budget bi léegi-léegi monthly allocation bi from the Ministry of Finance mm-hmm. léegi-léegi boobu tamit daf dee am jafe-jafe in terms of su fekkee ne ok yow example 10 million nga soxla si mone bi mm-hmm. léegi-léegi you may not have that 10 million waaye da ngaa gis ne ñoom tamit justification bi is léegi léegi. Euh, budget support revenu bi nu mel budget support amul jël xam nga hmm. tasaare ko xam nga su nekkee ten nga li mun nañ laa jox seven wala five so ñu bëri nag dañ lay gis ne ni loolu dafa ne waaye lu si gën a am solo rek no matter what happen euh, because xam naa ne seen fay ak yooyu moom dafa ute seen activité waaw ñu ñu try seet nu moo gën a baaxee waaye hmm. daf dee difficult trop because man maa ngi si FPAC bi te gis naa ñu bëri su ñoo Ngeja ñoom su ñëwee foofu si lañoo ñoo commencé di ñu wax seen jafe-jafe ma ne no soo gisee ñu ay appoint leen mm-hmm. is because of seen qualification o dañ téye ne mun ngeen a maan mm-hmm. soo sa fuñ la appoint mm-hmm. jafe-jafe boo am foofu wala lu war a yóbbu foofu yow yaa war a xelaat yow yaa war a xelaat loolu waraloo ñëw ba foofu nga commencé di wane eh soo gisee mënuñoo def lii lii ak lii ak lii la boo ko xamee adresse ko den mu ñëw waaw so so yii nag mooy jafe-jafe waaye comme ministère bi nag comme affaire yi ne euh, bail bi ak yooyu yooyu moom ay justification la yoo xam ne ni mais bi am nañu koo wa whatever waaye I don't think ne euh, loolu is a comme loi bi lu mu wax rek nañ ko toppa suñ ko toppee rek duñ am benn exactly so waaw ba tey euh, dañoo maintain si fi nga xamante ne mooy parliament bi because tamit minister of sports bi um, ay Africa TV indi nañ si story moom nag um, demoon na si parliament bi euh, pour question and answers bi du report waaye moom dafa dem pour tontu li nga xamante ne mooy laaj yi député yi te laaj yu gënoon a bari si um, euh, bu fa demee mooy yi fi wàllum stadium bi naka la ñu amee stadium bu es naka fan la stadium bi tollu si rénovation ak yooyu ñu demaat story bi ñëwaat ñu gën si yaata mbirum yeesalaat faw bu réew mi maanaam stadium doon na luy yitteel ñu bari ci réew mi ñu bari jàpp ne yeesalaat gi gënul lees war a def mooy samp ab faw bu yees maanaam ñu stadium ngir méngale ko fu réew mi toll ci wàllu tàggat yaram def nañu koppar gu bari ci wàllu yeesalaat gi waaye ba tey méngoowul ak santaane mbootaay gi ngan ko coupé ci Afrique muy kaaf mbirum foowu bi maanaam stadium ak mbirum tàggat yaram ci réew mi doon na lu yitteel jàmbur yi ndax laaj yu bari ñu laaj jëwriñ ji ci wàllu tàggat yaram la wàllum yeesal gi juróom benn weer képp la waroon a doon waaye jàmbur bu Joswang seetlu na ne liggéey bi dem na ba weeru ogos jëwriñ ji daal na leeral lu waral yéex gi. waaw amoon nañu ay jafe-jafe benn bi bokk na ci yéex a fay gi loolu moom suñu boor la ndax liggéey moom du dóor mukk fii ak fayoo ba noppi ginnaaw bi ñu fayee ba noppi amoon nañu itam ay gàllankoor lu jëm ci jumtukaay yi ci fa ñu koy jëlee ñu ñu jox liggéey bi seen bagasu yu bari réewum Toki les koy jëlee amoon na benn jamono bés ñu yëgalee ne am na seen benn bu am gàllankoor ak itam ci wàllu jël gi ca ba itam bokk na ci gàllankoor yi. So these are some of the issues ci ba réew mi moomee boppam ak léegi benn fow kese la mës a am maanaam stadium lu ëpp ci xew yees di amal ci réew mi ci lañu koy amalee lu bari ci askan bi lees bëgg mooy stadium bu yees. Euh, waaw am nañu ay mbébét ngir samp stadium bu yees am na ñu sax ba noppi mbébétu samp ab stadium bu mën a duy lu toll ci fanweeri junni ràññee nañu barab bi ba noppi waaye samp stadium lu seer la loolu nag dina jural réew mi lu toll ci ñaari téeméeri million mbaa lu mu néew néew téeméeri million bu teg dafa des ci tolluwaay bi million ci kopparu dollar laa wax yii mooy jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel léegi ñoo ngi ciy waxtaan ak ñu ñuy lëkkalool ngir xool nes la ñuy def amal réew mi ñaareelu stadium waaw xam nañu jeexital bu muy am ci suñu wàllu tàggat yaram suñu ndaw ñi rawatina ci koomu réew mi. in our sports uh, development jëwriñal tàggat yaram ci réew mi maanaam ministre of sports daal dina xamle ne door nañu liggéey ay stadium yu ndaw maanaam mini stadiums. Honorable Speaker, as of the ministry's uh, sports infrastructure. bokk na ci sumbu bànqaasi nguur gi yor wàllu tàggat yaram ngir samp ay mini stadium ci Diabougou ca Sandu ca Yuwaraar Janjambure ak Fulabantang ca Siaraar Kieng Julofar ca Elaraar ak ca Mboyo Fil bokk ci Serekunda ci kopparal gu ñu am nekk ñu rek di sampu ay mini stadium waaye itam ngir gën a tas mbirum tàggat yaram ci gox goxaan yi. The plans that we have for the country. benn stadium bu réew mi ñoo ngi ko samp ci réew mi ci ba réew mi moomee boppam ci atum junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom maanaam 1965 nguurug Chine gi ñoo ko sampoon mu doon fowukaay bopp lu ëpp ci lu ñuy amal ci réew mi ci les koy amalee moo xam xew-xewu politique coupé maanaam football ak yeneen xeetu xew-xew ci biir réew mi Mariama Thiam ci xibaar yi waaw kooku moo nekkoon ki nga xamante ne mooy of youth and sports Mom, nag um, demoon na tontu laaj fële na li ca national assembly bi ci député question ci am comme ni ko xamee rek euh, question ci bari mu ngi jëmali ci wàllum stadium um, ndax dinañ am stadium yi es wala duñu am stadium yi es gar bàyyi nga dema honorable because um, suñ suñ seetloo bokk na ci ñu ko laaj question yi ndax dinañ am stadium ak yooyu noonu daal <laughs> chambour bu bundum Kakunda honorable eh, Souleymane Diame moom sax moo ngi fi eh, laaj ko si ndax ñoom ñi ngi def jéego pour fexe ne nañ gis ne sampaat neen beneen stadium bu bees boo xam ne eh, dina tax Euh, CAF muy kuréel gi nga xam ne moo yore wàllu coupé maanaam football si si réew mi euh, si si si Afrique su ko defee dinañ mën a attract euh, Gambie dina mën a attract pour ëllëg mën a jéem a lu mel ni African Cup of Nations wala yeneen compétition moo xam si biir réew mi jëwriñ ji lu mu ko tontu nag mooy ñu ngi si ay jéego waaye loolu buñ ko nar buñ nar a lu mu war a koos Gambie dina toll ci ñaari téeméeri million ci dollar wala téeméeri million bu teg moom mu ngi wax waxi xaalis bi nu mu nu muy bëre waaye tamit fàtte loolu ban koom la mën a juralaat réew mi euh, fii honorable euh, nan nga nan nga gisee tontu bi nga xam ne moom tontu woon na la ko. parent question bi ma ko isi te soo gisee ma isi ko euh, mi ngeen niroo xam nga rek boo nekk si réew développement di dem da nga war a di xelaat ëllëg soo ma gis ne ni stadium bi ni ñu ngi ko maintenance ok wax bi bëri na si whatever te is the only stadium te right now mm. stadium buñ ko samp ak léegi Gambia population bi <laughs> dafa gën a yokk so right now stadium bi mun nañ ko maintenance waaye tamit ministre bi dama ko doon jox question pour ñu commencer di xelaat even su fekkee ne amuñ plan bi nañ xelaat ak government bi pour gis ne ni war nañoo identify place pour ñu am stadium bu ees Lulu nak halis yes belum share share share halis halis direct rek te jar te te dafa am lu moo mun isi number one dina develop sin sporting activity number two dina mun expose Gambia to the outside world te dina mun a attract pour Gambia tamit mun a as Rio ne dañ juga host African Cup of Nations dañ bugg a host under 17 dañ bugg a host under 20 yëpp ay tournament la yoo xam ne mi am si ay réew te tournament yooyu soo ko hosee lu mu tuuti tuuti yow réew mi tam am na loo dee loo si dee am ay bénéfices yoo xam ne mun naa nekk infrastructural development on sports da ngaa gisee loolu soo ko amee dina am lu moo yokka si sa si sa développement yaakaar naa ne ministre bi dina demal lii ak tiimam Eh, su gaa amee cabinet mu wone na ko wone ne ah laajte nañ ma lii ak lii ak lii te nañ commencé di ko liggéey xaalis bëri na fine waaye tamit mun nañoo am mun nañ koo fexe mun nañ koo defee in mun nañoo use Gambia seen diplomatique channel bi mun nañoo def bi ko Gambia am na connection ak different countries mun nañoo seet naka la ñoo defee dat diplomatique channel boo xam ne ni dinañ am funding or whatever waaw am na ay pexe yu bëri yoo xam ne mun nañ koo teg pour ñu am stadium te stadium bi suñ koo am dafa war a passé capacité bii nii because soo ko seetlee fii stadium bi Gambia su amee game fat fat mu mu mu mu mu fees nit ñi nekk si biti soo soo faa soo gut yaakaar naa ne su waree am sax nañ ñu ko yóbbul ay fifty thousand plus capacity nga gis ne ñëpp mun see am dara yaa stadium bi moom def naa ne moom am bëri na ñu mag. est-ce que du moo Gambie ñoo maase sax wala Gambie lu mu koy magee du bëri de. du ko mag non magee bëri na fi de. <laughs> non man lu may xalaatee honorable dafa laajte good question. Mm. because Gambia Football Federation. Mm. ñoom seen agenda bi. Mm. ñu ne waa 2024 2025 season bi dañu bëgg a am professional league. professionnel is a big hmm. agenda Gambia amangul ko léegi soo bëggee professionnel in league da nga nit infrastructure yes So amee professionnel yi da nga xalaat tamit Gambian club si dañu war a start di play ay hmm. CAF Confederation Cup CAF Championship ak yooyu hmm, so facilities leen need so sports development is indispensable from the facilities mun na ko facilities leen need a population of jamono yooyu thousands la woon hundreds of thousands ko daan sample maybe oh tens of thousands I don't know the population waaye léegi we are talking about um, two million plus kon Gambia su mooy play soo xoolee Gambia bu baax a baax sports football lañ gën a fonk mm-hmm. Gambia bu naan play Algeria ni ñi dañ fees si kaw ba si suuf ba mm-hmm. match bi dañ ko war a delay because lu tax ñëpp dañ bëggoon a seeraan mm-hmm. gis Gambia play gis ñoom ma tamit dafa laa gis Mahrez mu ne dafa. waaw dafa tiit because of the. Uh, stadium. waaw <laughs> daf ñu ko fontoo sax. wala lu mu wax comme fifty thousand day si kaw. non mm. ma su ma waxoon sax fifty thousand is at a low side. because Gambia uh, football fanatics yi bari neen. Mm, mm. kon ministre bi dafa war a stadi xelaat. xelaat la because xelaat mooy jur soo ko mooy jur ñu am stadium soo xelaatut soo ko dorut. mun munuloo ko am haphazardly because yaa ngi xalaat xaalis bi waaw xam nga xaalis bi léegi thank you very much mm-hmm. léegi naka nga nga am naka nga amee xaalis mooy second step bi mm-hmm. ono bi foofu la ko daan pousse waaw kon kon Gambia dañ need more than one more than one stadium te we also need a stadium boo xamante ne dafay am standard mm-hmm. bii dañ koy rénovate because luñ fa am soo déggee rénovation amoon na léegi ah. waaye ñun ne léegi bi dañ need stade moo xam ne dafa am ñu facilities hmm. facilities yoo xamante ne dafay méngoo ak jamono ak requirements CAF yi boo paree stadium yooyu xam nga bu sabar amee ñu yóbbu ko fa hmm. baro bi muy def bi muy loñ NPP fa la ko defee UDP <laughs> uh, coalition bi sax coalition bi waaw lu xew stadium lu xew si stadium bi Youssou Ndour bu ñëwee tëdd si stadium faaw tamit ñu waaw si mbiru gis nga uh, honorable uh, Ngagne Kumba Ba xam nga moom it dafa léeg-léeg dafa rëy ngir mos na fee wax ne comme Gambie moom féel na case uh, waaw as ministre fu mu doon waxee mooy war nañu lu mu dee dee ñu ogana am benn tabax boo xam ne comme boo demee Sénégal am nañ grand théâtre comme wala ministre moom si boppam non waaw moom reconnaissance na xam nga moom reconnaissance na fil na as ministre waaye uh, boobu bi mu ko wax boobu uh, sélégo guñ sax ba baro cabinet bi ñëw guddee waaw mi mu waxee loolu foog nañ ne sax cabinet bi duñ ko fi gisaat waaye ñu gis ne moom ba tey mu nekkaat ministre bi te moom rek a waaye lu si mënti am rek man dama jàpp ne war na ñoo am yenn barab yoo xam ne yii pour exemple euh, parce que Gambia tamit ci wàllu comédie ci wàllu euh, culture ñu ngi ciy dem bu baax a baax a baax yoo xam ne barab yoo xam ne lii bu ñu amee Euh, loo xam ne moo xam ne est bëgg a tëgg attaque wala ku bëgg a tëgg ñu defee ko fa waaye bàyyi suñu stadium yi nag bu nit bëgg a football ñu footballee foofu non dogguma la sax because ah. AFP amuñ national theatre because um, ba pare suñ um, industrie bi la maanaam the entertainment industry is growing big da gis comme um, lu ñoo face it private events yi private places yi mënoon nañoo am su amoon tey national theatre boo xamante ne it's purposely for entertainment uh, konoon yooyu yëpp dafa dimbali artiste bi tamit ak ah, dimbali ñi nga xamante ne communauté ak whatsoever waaye Gambie amul benn national théâtre te léegi ñu am gis nga euh, yangu ba xam naa dinañ ci mos a dalal sa ay am mooy private that is Ebujan théâtre and that is waaw te ñu ngi am booy ñoom oh, ñoom ñu ngi yu yu garaaw yangu ba ñoom tiita Diop ak sama mm. américaine boobu noonu mm, mooy mm, kooku waaye waaw waaw sama américaine boobu ak Malang ñooñu they are doing very good soo ñu ngi am ñooñu fii ci réew mi waaye lu ci des mooy faw ñu jàppale leen tamit teg leen loxo parce que gis demal Sénégal rek war nga dem yeneen réew tamit xoolal TikTok boobu noonu kii ah, xabilaam som eh, waaw mooy ki nekk Italie xoolal léegi parce que moom moo nekk moom la ñuy gën a follow TikTok mhm. moom lañ moo ëppale eh, followers in TikTok si àdduna bi yëpp mhm. waaw style am waaw ñëpp moo ëppale ñëpp ñëpp si àdduna ñëpp footballeur sax bi ah, léegi moo tax mu dee ñëpp big footballeur yëpp la dee dealer léegi te xoolal story bi nu mu ñëwee hmm. euh, covid 19 moo ñëw fu mu doon liggéey ñu daaxaw ko parce que mënatuñ koo fay hmm. moom mu nekk kër nag di tiktok rek te da ba tey musul wax moom ay nii rek lay def moom ay nii kese musul wax si tiktok musul wax benn baat waaw gestos rek nii rek kese soo xoolal tey mi ngi fayeeku millions of of of uh, hmm. kii euros soo moo tax faaw ñu jàppale tamit ñooñu waaye loolu yëpp lu ko mën a war faaw ñu samp ay barab. exactement yaa yaa nekk lu am solo ñu def suñ mujjanteeli story bi rek muy euh, demba suñu seetloo président Adama Barrow launch la euh, lii nga xamante ne mooy. Euh, accessible smart farming mu nekk loo xamante ne comme farming boo xamante ne daal dañ bugg a yaxanal maanaam agriculture fii nii ci réew mi maanaam wàllu mbay mi waaye dem ci biir waxtaan bi ñi nga xamante ne ñooy Eh, farmers association kenn ki leen eh, eh, ki leen teewal si béréb boobu sant na Adama baro ak waxta wax fa kàddu yu yeneen kàddu daal léegi nañ dem déglu déglu story bi suñu waatee dañu gën a yaata waxtaan mbootaay gi ëmb baykat yi ci réew mi wane nañu seen mbégte ci yokkute bés gis ci wàllu mbay mi ci réew mi ci teewaayu njiiti réew mi ki doon teewal mbootaayu baykat yi di Alaaji Siise daal dina sant njiiti réew mi ci yokkute gi mu indi ci mbay mi ren maa ngi koy wax ci télévision laay waxee Gambie yëpp amul benn région boo xam ne jiwu gerte demut fa wala jiwu maalo wala jiwu mboq ak lenn ci engrais boo xam ne dañ ko maye. lu waral loolu ci liggéey président Barrow ak mbootaay yi ànd ak moom di liggéey ak moom naku faak ñu ci aju su loolu passé engrais ñun dañ daan toog ba nawet bi su ne di palpal di xonq di def pepp ñu door a gis engrais soo munee jënd soo amul njëg ku ne ngéej loolu lekk nag tal la jënd engrais. léegi nag alhamdulilahi rabbil alamin président Baro indi nañu engrais moom ak ministre of agriculture docteur Demba Sabali tabaarakallaahu muy ministre boo xam ne indi na Gambia agriculture bi foo xam ne ci ndimbalam ak ndimbalal président Baro ak managing director GGC ak ñi ci aju ñëpp agriculture bi mosu fee egsi wax dëgg fa yàlla xulil xaq walaw kaane murran waxal dëgg donte dañ lay rey wax dëgg terewut a dem kenn. moom Alaaji Cissé daal si dolli ne bu ñu méngalee njëgu gerte ci yoo jamono ak léegi soppeeku am na mu xamle ne loolu pas-pasu njiiti réew mi ci mbay moo ko waral. agriculture bi fi mu toll tey mosul fee toll kilo gerte at yi ñu passé yëpp balaa président Baro. fifteen dalasi point twenty five butu la daan jar bi mu jàkkeew fi mooy fukki dërëm ak juróom ak trañ so te daan nañ jënd gerte gi duñu woo seko manager yi duñu woo président union yi duñu woo kenn da toog rek ñu la joxe nañ price gerte ku mën jaay ku mënul yaa xam waaye ku ne ngéej la dundee lu ñu la jox nga jaay léegi nag président Barrow génn na fi loolu balaa joxe engrais dina xoo béykat yi wax ñoom balaa joxe place dana woo gerte place su gerte dana woo béykat yi wax ak ñoom ñu waxtaan di sottante xalaat olof ne bu këll dem neen bu sëll yooy ba baykat yi gis seen bopp nguur gi gis boppam ji ji si gis seen bopp Gambie dem ci kanam. ginnaaw jéege bu am solo bu ñu amal ci wàllu mbay njiitu réew mi Adama Barrow daal dina woo ñëpp ci liggéey te wàññi wax ji ngir réew mi naat. Gambia ñu ngi leen di ñaar nañ bàyyi wax ñu liggéey liggéey moo ñëw njariñ mbay doon lu am solo rawatina ci réewum Gambia ñu bari am yéene ngir dugg ci mbay waaye nag jumtukaay ak njàppale mooy waral seeni yéene du antu ak suñu bële ñu nas ñu bari am nañu ci yaakaar ngir mbay mi suxale ko waat bu baax ci réew mi Mariama caam ci xibaar yi. waaw kooku mooy Alaaji Cissé di teewaloon foofu noonu Farmers Association bi moom nag wax na ne at bi engrais dem na si dëkk bu nekk ak gerte ak yooyu noonu jikki gerte bi wàññeeku na ah nak nag gar bi oh, ah wax na de waaw moom wax na de lu tey soo ñëwee ñëwee ñëwee jooytu engrais waaw nga jafe-jafe ma wax la affaire ban jafe-jafe la Gambien am mën naa toog si sama ginnaaw kilifa ne dara doxul li doxul li doxul kilifa gi ñëw toog ak man naa kan dëgg dëgg jàmbaar nga dëgg dëgg yaay jàmbaar fekk man bi ngay fi nga nañ di jëw baro nekkul suñu suñu njiit fu ma bëgg a waxee mooy baro xam nga suñu lan la nga ba suñ savane la xam nga su ma waxee jaam ñu bëri waaye jàmm mooy savane man waxuma jaam comme tag bu maay ñin la war a jaamu suñu ay soxla kon lu doxul dañ ko koy yëgal nekkul da nga ko xas da nga koy yëgal ne ko njiit réew mi ah lii doxul mu xam ne lii doxul lam ci war a def si saafara mu def ko si waaye bu ñëwee tey ji nga ne ko euh, baykat yi ci li ñu nekk di dund ci réew mi nii mosuñu ko woon a dund ci nguuru Jawara ba ci nguuru Yaaja mi ci sa nguur gi leen ko doog a dundee baro kon su ko neexee mu ubbeeku ne ah man kay kon ñi waxatuma leen dara nga wax ne kilo gerte la mu daan jar ci yeneen buñ ko doon ménga ci jamono yële suñ koy méngalee jamonoy baro léegi la gën a baax kon kay baro su ko neexee am na ndam ci baykat yi kon baykat yi lu ñuy jooyati mm. baykat yi ñaata yoon lañ fi jooyee ne engrais dafa seer ñaata yoon lañ fi jooy ne engrais glyphosate ñaata yoon lañ fi jooy ne du ñuy waxtaan ak wala ñu duñ ko jaay bu léegi nag comme ñu ne baro mosu def dara te waxtaan ak ñoom te ñoom ñoom ñaata yoon lañ fi daan jooy ne euh, du ñuy yëg sax fu ñuy kiiwee wax nañ ko fa son dix farmers association ñoom mbootaayu baykat yi wax nañ ko kon moom Alaaji Cissé mii de xaw ma lu mu doon ci mbootaay gi mbootaay gi am na ñu ko mere de. ah ok ba pare Yankuba yow yàgg nga sax di def comme di engage ak pharmacie and their issues mm-hmm. te gis nga Alaaji Cissé lu mu wax comme lan nga si si moom si waxam. parce que moom maanaam. moom daal nee na yëpp góob daal. Mm-hmm. tuuti ok ah, waaw lu mu wax rek dina represent the realities. Mm-hmm. at least improvement am na. waaw nguur bi indi yoon na fi ay tractors. recently sax. Ehm, Nshandu ak Wuli is dañu jox pharmacie yi ku nekk ñu ngi ñu amoon jafe-jafe seen pharmacie yi am na nga xamante ne de eh, tout à naan last year mi baaxul hmm. waaye dañ lay jox xaalis yàggul sax amut two weeks hmm. waaw NDMA ñoo la yóbbul xaalis ku nekk am na fa good man boo xamante ne mën na laa jënd ñaari saako maalo ah mooy flotte boobu noonu. na du ah, comme like seen ji bi moo baaxul. ah ok dañ uh, am na. Mm-hmm. waaye it's not enough. gis na ins eh, moom su waxee ne dara amut wala problème amut nangu tax wax problème si even ku dul fama sax xam na ne pharmacie si gën a sonn ah, loolu man man for exemple man dama dem to different eh, parts of the mm. si yéen ni ñi laa foofu jógee ko rek man ma dee dal si lodge man si këri ni ñi laa dee dal mm. këri fama sax sometimes laa dee dal lu bëree bëri mm. waaye ñoom seen basic basic food bi si amul balance diet mooy force ñoom dee pharmacie waaye li ñoo lekka man ñeme ma koo lekka fii man muy ku dul fama yeneen country pharmacie ñoo dee gën a lekk lu correct ñoo dee enjoy waaye man ñu di fama lu ma dee lekk ñoom lekkuñ ko different lekk loolu sax waroon na ne poverty poverty level bi indi farming sector bi bari na su ñëw su ñëwee engrais ñun media bi du forêt a sax different media houses bi na leen ne bi am na dëgg la waaye dafa seer one dafa waroon wax ne nguur bi next time at least ngeen so gannaaw subsidies second li am na ñoo xam ne dañ ko dee jënd ñu ñëw jaayaat ko mu gën a seer yeneen erreur sax ñu ne gisuñ gisuñ engrais ay boori jokkaa du fële amoon amoon na interview ak ñeneen ñi ñu ne ñoom gisuñ ko te publish nañ ko kon su moom angle bu mooy waxee man understand ma ko réalité pharmacie yi mooy ne one pharmacie dañuy xiif amuñ xaalis bëgg nañ béy lu rëy Gambia ñun ministre bi yàggul bu mu loncee naka la sax di drive for un full self sufficient am na year bu mu joxe sax xam naa 2025 xam na 2026 waaye am na at bu mu joxe hmm. mooy Gambia is possible armée bi bëggoon nañ def saa yooyu waaye armée bi doxut waaye bi ñoo ko initiate with the help I think South South Korean hmm. loolu su doxee dina ba waaye pharmacie yi dañu dañu need a lot of funding a soo rek covid 19 ñëpp am xaalis funding ak yooyu waaye pharmacie amuñ hmm. loolu coono la kon kon su fekkee moom dañ ko jël to talk speak on behalf of farmers hmm. problème si la a jiital daan tàgga man suma justice so uh, MC maanaam bëggoon honorable uh, xam naa dina bëgg a ñëw si lii waaye comme waxtu bi daf ñu xoj mu hmm. bëggoon mu ñu mos tuuti xam naa dinañ ci waxaat mooy si mbirum FPAC. bu mm. naa tamit mm. waaw ñu ñu am ci la ndax. Ah, bëggoon naa am si waaye. waaw um, uh, ambiance show moo ñëw te gars yi contrôle ñu maa signal ne comme amuñu. ah waaw kon kon kon su ko defee. honorable si mbiru Alaaji Cissé ak. sim uh, simaat. Uh, waaw famille bi nga xam ne lonj nañ ko ak Alaaji see moom lu mu wax tàgg njiiti réew mi si moom ci wàllu mbay moom def na ci jéego yu ama am solo maanaam daal si tënk moom li mu wax daal mooy. femme euh, béykat yi jooyatuñ dara daal si si nguuru xam nga xam nga tamit eh, man duma ko si duma ko blâme mm. dat mooy comme moom mooy président yi farmers association moo leen représente te xam naa dafa kontaan eh, si new développement boo xam ne ah, ni ah. eh, mu ngi mu ngi dugga si si farming sector bi mm-hmm. waaye comme dinañ use opportunity bi because man dama gom ne ni lu baax su amee si réew mm-hmm. dañ ko war a rafetal mm-hmm. mm-hmm. eh, di gërëm di government of the Gambia through the president and xam nga ak ministry bi for coming up with this eh, eh, xaw ma digital smart farming yaakaar naa ne président mosoon na koo wax so su demee be loolu am léegi dinañ ko rafetlu te dinañ wax ministre bi tamit nag léegi am nañ liggéey pour nag because lii is about technology. Mm-hmm. so pour ñu make sure ne ni ñu am ñoo xam ne ni dinañ leen train ñu mun a xam lii bu baax a baax. because soo ko seetlooyee suñ pharmacie fii ñu bëri eh, jànguñ te definitely they are not exposed to such eh, technologies. Mm-hmm. waaye yaakaar naa ne soo gisee ñu def ko dinañ sóoraale loolu waaye maintenance daal nañ make sure ne ni mm-hmm. machine yii nii ñu maintenance ko te suñ ne farming farming moom dafa am. ok pharmacie yi nañ mm. te soko ko seetloo fii ñu bëri eh, time ndawet si lañ dee engage into farming activities mm-hmm. ñu am gerte ak ay ak whatever waaye da ngaa gis ne ni ñu def farming man si ñu ma gën góom mm. maanaam moo nekk cultural garden ini, nii te mm. loolu jigéen ñi ñoo si dee nekk te smart Euh, lifin bii nii euh, foog naa lu dina baax si horticultural garden si nii nga gis ne nii dina tax jigéen ñi euh, duñ am coono bu bëri so because lii lu am solo la so fu mu nekk ni nuñ koo maintenance nuñ koo maintenir ak xam nga rek nu mu fal lañ koo yóbbu tamit yoo xam naa ne horticultural gardens yi bëri nañ fii waaye ñu ngi ñaan tamit lii mu gën a bëri mu nekk loo xam ne day njëriñ pharmacie waaw comme di Mister Cissé moom représentative la te xam nga nit ki nag yokkute su amee foog nga kontaan foog nga wone and whatever waaye xam nga jamono bi benn what is on waaw xam nga no what I xam nga comme in terms of agricultural this thing man I may not know exactly what is there waaye comme moom mi ngi represent mi ngi mi ngi wax lu bëri waaye xam xam naa ne jamono du benn mm. jamono démb ak jamono tey du benn soo ne ok because before dalasi bi to di dollar before ak léegi dafa ute so moom xawma ma si ban perspective la ko waxee waaye yaakaar naa ne tamit eh, comme xam naa ne dafa nekk di gërëm di di wane kontaante waaye léegi des na si ñoom as farmers ñu xam lan moo moo leen gën a soxal ñu make sure ne ni ñuy waxtaan a seen politiciens yi mooy seen député yi mhm. mooy seen kansule yi mooy seen chairman yi ak ministre bi ñu xam lan mooy jafe-jafe bi waaye xam naa ne euh, pharmacie ñu ngi si ay jafe-jafe fine waaye tamit euh, lii nekk na loo xam ne tamit beneen step la towards the right direction so ñu ngi ñaan euh, nguur bi mu gën a farlu gën a jàppale gars yi man de especially horticultural farming xam nga wax nga ne dem nga amuloo balance diet bu correct loolu la mën a jox balance diet bu correct mooy mooy garden waaw so te yaakaar naa ne war nañoo investi loolu bu baax a baax incha allah. moom na xoñ nañu ba pare waaye gar mi um, wax loo doon wax noonu dinañ ko am parce que dama bëggoon a rek ne um, dinañ indi stakeholders parce que dafa nekk issue dafa broad te bëgg nañoo xam nga ku nekk um, pour ñu rek ñu leeral mbir parce que coow li bari na. waaye waaye waruta am coow. Hmm? FBAC report bi is clear hmm. foog na recommendation suñ fa joxee ak ñu ñu fa joxee hmm. loolu lañ war a def bi ko xam nga Gambia nit ñi dañ dee wax ne nii xam nga duñ dee nangoo topp dara wala nit ñi faa def waaye léegi FPAC bi ak assemblée bi hmm. def nañ seen liggéey isi nañ recommendation hmm. léegi koo xam ne nii feel nga ne recommendation boobu noonu wala resolution bi is not in line léegi you just need to come and prove yourself waxuñ la ne nii dañ ne auditeurs yi luñ ñu wax ak luñ ñu jox ñun moom lañ demee mm. soo su fekkee ne yow am na leneen loo xam ne mun nga koo teg mm. pour proof sa boppa mm. you just bring it ñu jokkoo to the auditors suñ ko confirmé then that's it so waaye yaakaar naa ne dañ nekk di def liggéey waaye liggéey bi foog naa this is the first time <laughs> assemblée bi ñu war résolution boo xam ne nii xam nga mu ngay lajte ay xaalis yoo xam ne nii joxoon nañ ko manqué na wala ñoo xam ne ni xam nga rek ñu ngi def ay njuur ñaay te yaakaar naa ne pour dëkk dem foog ñu leeral lii ñu taxaw si gis ne ni lu si war a am mu am. waaye su fekkee ñu ngi wax ne loolu lañ bëgg te suñ ko defee coow bi bëri. Mhm. daf ñëw tardel loo de. waaw waaw mu bàyyi la nga lifin because lii daal dinañ si si gën a waxaat. parce que li dafa nekk issue boo xamante ne dafa important trop. suñu bari waaw waaw noonu la euh, di gërëm. Euh, honorable ndax euh, bi ñu ko bi ñu ko invite mu ñëw dafa prom trop trop trop wax dëgg fa waaye bàyyi na yitteem yëpp ñëw euh, nii rek la ñuy soxla si représentation euh, bu la nit ñi soxlaa ndax nekkul ñun li lay laaj nekkul pour ñun bu doon loolu rek mën nañu laa voice message nga tontu ñu ñu dee ko waaye boo gisee ñu lay soxla mu ñëw si tele mooy ki nga xam ne mu ngi toog fii ba ci kaw gi mënut a mënut ñëw te yow mënoo dem wax ak ñëpp su ko defee te xëy na liñ soxla mu yow yaa ko mën a leeral ñu laaj la ko nga tontu ñoom ñu mën ko jot euh, loolu mooy tax ñu leen di soxla di gërëm tamit yaa ngi ko moom suñu naataango la euh, di ko gërëm bu baax a baax mu tamit si mu bàyyi yitteem yëpp ñëw fii euh, ngir ñu waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi te gis nga moom it joxe na ci jàngatam yu am solo honorable bu tamit gërëm ko bu baax waaye gërëm yéen ñu doon seetaan tamit AIFEC TV jotaay bii di breakfast Euh, dig leen daje ci euh, gaaw ba di ñëw incha allah. waaw next week Saturday incha allah li leen leen amaloon si breakfast bi di leen wax ne nag ambiance show ma ñëw ak soxna Tunkara di gërëm Hadi Jaasi si technical aspect bi di gërëm tamit suñu gëstu si amoon ak yéen mi toogoon dañu seetaan join lañu next week Saturday ñu indiwalaat di leen beneen waxtaan bu ama am solo si noonu. have a nice weekend soxna Tunkara <laughs>